sallallahu taala alayhi wa sallama haysu quriat aw kutibat aw nusira ilayha abadan amin ya rabbal alamina wajalha mima tataqana biha huurul hiin wal wildaanu fi ljannati allati wuhida almutaquuna wajalha min ahabi sukri ilayka wa ilayhi alayhi salaatu wassalaamu بسم الإله ينملها بلا مناهي ولا انتهاء Bienvenue sur Sud بلا منايا على النهاية بسم الإله أنورها لا لا بلا منايا Bienvenue sur Sud FM. L'info, c'est ici. bismillahi rahmaani rahiim. rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli mbokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Sud FM seen rajo seen jotaay bi ñu tuddee alkitab ngeen koy am yoor yoor ak mu jot waxtu wi dellu si na ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk alxaaji al imam Serigne Alioune Mbaye ak seen mbokk alxaaji Serigne Mbacké sila ak seen mbokk Alioune Sall sur Sud FM. ginnaaw bi ñu sant sunu borom subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñaan jàmm ci réew mi ak réew yu ko wër. sama gaay yaa ngi nii ci studio bi tabarakallahu fas yéene ànd ak yéen ci 9h ba midi incha allah ci seen jotaay bii di alkitaab. Oustaz Alioune asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Alxaaji Sëriñ Wàkki Silla asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. ma bàyyi leen ngeen nuyoon teg way déglu yi. tey jërëjëf Oustaz ñu fay la nuyoo nuyoo la nuyu soppeek di jàmm yi nuyu waa réew mi waa bitim réew beral nuyoo nag sama xarit bi sama cousin bi Sëriñ Wàkki Silla ñaan la nuyoo bi fekk ko ci jàmm ak salaam. allahumma amiin Xaaji Mbàkke. jërëjëf Oustaz ñoo ngi lay fay nuyoo di la nuyu di la siyaare ci ajuma ji di nuyu auditeur ak auditrices yi bàyyi xel Sud FM seen rajo di fay nuyoo tey nuyu imaam alxaaji oustaz Alioune Mbaye borom Pikine ak Dalifort ak Kër Massar ñàgg ñàgg jërëjëf borom ñàgg nu jotaay bi tëddee incha allah oustaz ñu ko doon defee lañ ko defee mu ñetti xaaj indi sunuy laaj ngi seen laaj tontu bu 10 jotee lay doon bu dee ku ne ci biir réew mi day woote ci 88 fekkee bitim réew ñooy jaar ci ñu bëgg a jot oustaz Aline Mbaye ci biir jotaay bi xam naa muy moom wala man wala ñun ñi def jotaay bi kum ci man di doon bu dee yaa ngi rajo bi ñu fàttali ne la suñ téléphone yi bopp yi duñ a jël te mën naa indi ak njaxas ci liggéey bi amu leen moroom tabaarakallaahu daal di coow daal di nuyu mboolam koo xam ne ki yaa ngi yëngatu ci xasaayit jàng ak jàngaleeg fonk di ko wecc kook yëpp yéen ñëpp asalaamualeykum ahlul qasaayid yi daara vacances yi tabarakallahu ndongo ya jàng ak ñay jàngale yéen ñëpp asalaamualeykum les parents asalaamualeykum jaaykat ci taabal yi nga xam ne tabarakallah boo génnee sa kër te mënoo dem ce marché ba ndax tayal ak wala ñàkk caa dem nga jënd ci yéen borom taabal yi asalaamualeykum. marché awo benn marché la bu nekk fële ca daaru ci bu waa marché awo asalaamualeykum. yéen jaaykati ceeb yi asalaamaaleykum Bokar Samb Jeey mu ngi biir nuyoo bi yéen sardin yi yéen nga xam ne yéen nag ci jardin yi di toppatoo ko defar tabaarakallaaw di dagg ak euh, bale ak di arrosé yéen tam asalaamaaleykum da farkati fani tabarakallahu assalamu alaikum kanka yeri yentam assalamu alaikum jaaykati marché yi ak ñi nekk jamono ji dugg marché ak ñi nga xam ne tabarakallahu ña ngàbb seeni euh, njaay def seen vëgg man ci seeni nopp tey déglu assalaamu aleykum waa tata waa Dakar dem dikk yi waa taksi taksi clando ak taxi banlieue yéen ñëpp nga xam ne yéen jëleel nit ñi fi ñu nekk jëleen yóbbu fa ñu bëgg a jëm asalaamaaleykum te di leen delloo si jàngalekat yi diine yi nekk ci rajo yi wala ñu nekk télévision yi yéen ñëpp asalaamaaleykum Imam Moussa Gueye RTS asalaamaaleykum tabarakallahu moo xam ci Europe ngeen nekk moo xam ci Asie moo xam ci Amérique yéen ñëpp asalaamaaleykum rawatina sunu dëkk bokk dëkk ci Afrique tabarakallahu sëñ Xaadim Gay asalaamualeykum mbokk ca Japon mbokk yo ci Suède mbokk yo fu ñu mën a nekk ci biir réew mi moo ci bitim réew kon moo xam ne ci Allemagne asalaamualeykum tabaarakallahu kon nag ñu del ci jataay bi fekk fi sama gaay ñi ngi nii toog daal di ne sunu mbokk Oustaz Alioune Mbaye tabarakallahu Oustaz Alioune asalaamaaleykum <laughs> waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu tafaddala mashkurayni fa jazakum allahu xayra shukran shukran shukran jërëjëf oustaz maa ngi lay jégalu mburu bi na mbàkki doon <laughs> mburu xëccoog man doo wax ne da nga doon concerté wu rek <laughs> da nga ma doon kii daal ma lay dégg ma concerté ma lay yedd ci sa reer bu rëy bi nga reer démb fa nga reer <laughs> suy soo bëgg nga ko trop mbàkke jërëjëf oustaz ñu ngi lay fay bu baax te di la nuyu sëñ Mbàkke yaakaar naa ne oustaz def na tournée waaw def na Euh, euh, tournée bu am solo. tournée nuyoo. waaw macha allah comme ni ni nga doon wax nii. saa boo xamante ne nuyu nañu rek dana yóbbaale ñeneen ñi ndax ñiy békk ci jotaay bi ñëpp mën nañ su leen tudd ci benn jotaay kon ñu doy loon nuyoo bi te gërëm ko moom itam ci nuyoo bi incha allah ah, mm-hmm. alhamdulilah euh, ñu tàmbali kon tàmbali ci lef mi ay ci bisimilah bisimilah alaaji sa <laughs> ginnaaw mu la nuyoo siyaar la masa wala coono mm-hmm. masa la coono ay panaan mi mm-hmm. dama xalaatoon ni bu ñu ñëwee ñu waxtaan ci ñaari point Euh, point bu njëkk bi mooy nga delluwaat ñu ci waar ak ci dimbali ndax éducateur moom saa wa toogeek moom nga profité ci lu mën a doon mm-hmm. euh, ma bëggoon indi ñaari baati wolof ci ngor ak jom mm-hmm. ñaar yooyu moom lañu sunuy maam daan mooñe mm-hmm. moom lañu daan bàkke même sunu sunu armée nationale sax mooy xool ci seen wax loolu ci la bokk mooy mosaan dem lël wala ngay jamu bi jam de xew wala yu mel ne bari yu bari daal daaw dañ la ko bàkke boo giseen géwél am valeur eh, loolu ci la bokkoon ndax danaan ñaax jàmbaar di ñaax gor léegi ma bëggoon laaj ñaar yooyu soo ko doon centré kii suñu gone yi léegi nga xam ne li ci ëpp duñu tubaab duñu ay sénégalais duñu africain dañu nekk ci diggante bi mm-hmm. eh, noo ñu koy décortiquer la maa lay fay nuyoo di fay Serigne Alxaaji Mbacke Sylla nuyoo di am mbégte ci suñu jotaay bi di ñaan borom bi mu def ci barke ba temps jiñ fi def ni ñuy déglu tam di ci def seen temps mu bañ a neen ku ci nekk jële ci loo xam ne euh, dana jar nga toog di ko déglu amiin ñu am ko ñoom ñun tam ñu am ko Euh, dafa am ci nit ay jikko yoo xam ne fadail la tudd mu am ci moom jikko ci tudd rasail rasail mooy jikko njombteef yi fadail mooy jikko yu baax yi jikko yu baax yi nag da nga ci tudd ñaar léegi muy ngor ak jom ngor ak jom ngor dafa nekk ci jaww ji rek walla nga ne dafa nekk ci saal bi nekku mbubb benn saal bu mag mbubb bu wax jom wékki kon moom am na existe na bi mu wékkee nag ci saal bi ku nekk boo ñëwee boo boo wékkee summi gore nga mbubb hmm. maa ci saal bi tudd ngor hmm. léegi boo wékkee summi rek gore nga ñu ne diw ko gore la wala ñu ne diw ko am ngor la hmm. gore as gor mooy koo xam ne du dugg ci yëfi jàmbur moo xam yooyu muy dugg yu physique la walla yi muy dugg yu matière la waaye moom ngor gi ci moom moo koy téye ba du dugg jëf jàmbur penc ci la ci sunu biir réew mi te nekk ci biir ndox ma nu tudd gore gore ndax dafa xëy rek tubaab bi moo ko tuddee gore wala nun noo ko tuddee gore waaw mais ñu ñoo ko tuddee ñoo ñoo ko tuddee mooy. dañoo seddoo as cuuf. su ndaw su ndaw. boo cay dem daraa la fa yóbbu boo ñibbisi dara la yóbbu. yem gi ñu yem ci cuuf soo sa tax ñu ne yéen da ngeen a gore. <laughs> waaw xeebu leen ko xew <laughs> très très bien xeebu leen seen cuuf yem ci kepp mm-hmm. gis nga kon Oustaz Alioune mm-hmm. ngor ak gore mm-hmm. xam nga fii am na fi quartier bu tudd ngor waaw am bu tudd gore ma ne kon ngor mooy ab jàlla bi la peut-être am yëril daal mi ngi ci saal bi rek ku ko sol gore nga ku ko sol rek gore nga ah. léegi nag bi nga goree nag. Hmm. mu am yoo xam ne yow doo ko def. Hmm. doo jël fi jàmbur. Hmm. doo toxal waxi jàmbur. ah. doo yàq derub jàmbur. ndax yow da ngaa gore am na ci loo goor ba noppi. góor li nga munta goor ci moom nag bàyyil ka ca goor goor ci moom te nga doyloo li nga goor yow. macha allah beneen bi muy jom jom mooy nit koo xam ne kii dafa yëg ne saakob ceeb bii dañuy boolub ceeb bii dañuy aaye ci tibb bu ci kenn tibb te jotoon ndigalu tibb ci ginnaaw ñu koy tere nag yar baa ngi fi ki am jom mm-hmm. du ci tibb yar ba di ko dal mm-hmm. ndax ku ci tibb dañ lay duma kon moom du ci tibb ndax day bañ yar bi dal ko te nga xam ne même buñ tibb nga xam ne même buñ nëbboon yar bi du ca ginnaaw di sàcc di tibb waaw du ci tibb <laughs> hmm. kooka gore oustaz Alioune <laughs> dañoo sa am fii suñu mel na mbokk mu fi nekkoon mu wax iddi hmm. iddi waaw suñ ba xam ngeen ko sax hmm. waaw sa xarit sama xarit ba woon yal na amin moom nogo bokk bàyyi ndeysaan ndeysaan yal na ko ñun ñi nga xam ne ñoo jóge càll te dëkk dakaar hmm. te nekk dakaar hmm. dañuy daje par weer wala ñaari weer di cotiser hmm. di ko jox moom muy denc ab tolli la woon nag <laughs> ñu dajale bu ñu dajalee di ko di ko jox di ko denc ba mu mat ab som mu dem dénkaale ñu ko fa ñuy dénkaane xaaj bi benn bis mu dajale ci deux cent soixante-dix mille def ko ci enveloppe ñëw ne ma sama sama luyaas bi dafa manqué temps mu ne ko waaw doo leb ci kees gi loolu ci manqué mottali ko ci mm-hmm. mu ne ma déedéet ma ne ko ndax la yow nu noo moom xaaj bi dajale ko de mu ne ko mu ne ma li ngeen ko moom a tax ñu daje ci pëncum càll ma mm-hmm. ñu ne kees gi manqué na fukki junni ñu ne ku ku yoroon kees gi ñu ne iddi mm-hmm. kon oh. xel yëpp day jàpp ne man mii maa jël fukki junni yooyee ndeysaan du leer ci boppi ñëpp du leer ci boppi ñëpp gàcce googu ci pëncum càlle oh. <laughs> ndaw koo tax ma sol sama dàll ñëw fii ne la may ma lu ma fay lu yaas mu xëm jot na xam jot na loolooy jom mooy su ma defee lii mm-hmm. lu ma ciy fekk suma pare hmm. moo tax léeg-léeg man su may firi ba agsi ci baat bi ma koy firee baatu taqwa ma koy firee jom <laughs> <laughs> léeg-léeg ndax lan <laughs> bëgg mu jege si suñu góor gëla ca Parcelles Assainies unité 1 Baye Saliou mag ñi xam lan mooy jom boo ko firee rek ñu dégg baat bi Mbàkke li mu ëmb bari su ma su ma bañu toon kii def ne ma bu fekkoon fi mu nekk nii wàlliyu la Baye Baye Saliou Dieye hmm. ñu may dégg hmm. àndandoo ma dafa gaañ gaañ ñu ko sëñ Mbaye Dieng hmm. daf ne bu fekkoon fi nekk wël yu laa li ma jox ak wilaaya muy ni nga firee baatu taqwa allahu xam jom pour dëggale ko li nga wax nii donc ñaari baat yooyu ay takkaay lañu ngalam lañu wurus lañu ku leen am ñàkkatoo dara. Ah, est ce que est jërëjëf. waa ji daa ñëw sëñ Cheikh Mbacke ne ko ah diw maa jaaxle ci àdduna. mun naa mun na ko diw moos. mun naa mun na ko daa jaay ngorom. sëñ Cheikh Mbacke muuñ. Ah. <laughs> ne ko ah danga naan amutoon. ko woon amutoon ngor. <laughs> ngor kenn du ko am di ko jaay. daa amul njëg dafa neex. <laughs> góor gën a groupe. ko bi lay wax nga dëgg. <laughs> jëlaat na leçon. alhamdulilah. am na solo trop yaakaar naa ne suñu bàkkee. oustaz ni nga ñoo décrire ngor ak jom. Mm-hmm. yaakaar naa ne ñaari caq yooyu nga xamante ne. Mm-hmm. ku nekk war nga ko jéem a. waaje ci sa ci yow xew. Eh, dégg naa ne am mbër moom su ma yaakaar naa yëkkili la su war mm-hmm. na wax ne nee na moom bëriwul pour dimanche ji. altine lay bëreel. rediffusion yaa tegaat ya. <laughs> altine altine yu bëri commentaire altine ya. waaw lundi sànd ga. ak télé yeeg rediffusion yi. Oh. nee loolu la doon bëri. Oh. mos na ko wax ci benn waxtaan ndeysaan. wax na wax ju rëy muy jàngale bu rëy. Mm. waaw sëñ Bakk yaakaar naa ne du ko defee bàyyi ko dugg directement parce que euh, thème bi riche na na solo thème bi riche na. Mm. oustaz ni mu ñu ko misaalalee am na solo ci ak col. Mm-hmm. xam nga dafa mel ne dafa taxaloo ak thème bi ñu waxtaanee woon ajuma ji ñu génn. Mm-hmm. ndax fi ñu jaaroon mooy jom. jëloon ko ci àngalu jëfe nangoo muñ ay jafe-jafe ak coono yi ngay tegoo ba am teraanga ngeen jàngat ko njàngat moo xam ne biig bi ñu ko tegaatee ci auditeurs yi fekkiwu doon waxtaan wi laa bokkoon maanaam wax ji rëy na te itam mën naa yëkkati yittey nit nit ki bëgg a am yitte loolu mën naa yëkkati yitteem te saas ñu dolli ci benn baat boo xam ne mooy baatum ngor ni nga ko waxee am solo lool mm-hmm. ndax ndekete ngor mooy jur gore waaw olof da daan wax naan wéet gore wéetliku gore hmm. te boo seetloo yu baree bari di am ci penc mi oustaz hmm. nit ki eh, ñàkk am ngor hmm. moo koy indi baatu faalewuma dara waaw wala um, wala coow coow ba. Mhm. wala lu man di xew du mujj fenn. baat yooyu nga xam waa mbambu rëyut weer nga xam ne baat yooyu nit ki ñu koy jëfandikoo di ko wan ko garaawut loo fi def njëkkoo ko fee def. Mhm. dana tax nit ki man koo def ci lu man di doon. Mhm. Euh, ba nga xam ne ñàkk waaw ba nga xam ne ñàkk am ngor googu da koy jural ñàkku tagg. bu boobaa ñàkk am référence day am kenn dootu amati modèle. ndeysaan euh, kero bi ñuy élimine lion yi. ndeysaan Saas Mbàkke toll na jamono yooyu boo amoon mayu dugg ci terrain bi. xeet <laughs> yaa ngi toog sa télé di seetaan <laughs> gisoo ma bind leen ni leen ay bu doon jàngal xuraan <laughs> parce que comme kenn fa nga mënee rek a ngéem boo non lay ndeysaan moo tax yëf yooyu jom jom dañ ko mooñaale woon nit ku ñuul mooñal ko ab africain mooñal ko ab sénégalais nga xam ne sa jom. Mm-hmm. mooy tax doo dellu ginnaaw. dëgg la mooy tax doo def lu lay xeebee àccam. Mm-hmm. waaw jom moo ko daan def. Mm-hmm. ndeysaan. xam nga daal yóbbu. Eh, oustaz yi. danaay def léeg-léeg ma am émission wala ba ma am conférence bu tudd euh, crise de valeurs. waaw wala des morales. waaw jikko yu yàqu yi. jikko yàqu yi. su ma ñëwee dama daan misaal jigéen ju tëdd jaaxaan ñu fab ay déggi sump di la ko jam cim siiñ di jam jëm ci sikkim ba. waaw am waaw. dara jéem xewoon na fi. nga am ak jigéen joo bokkal baay. Hmm. muy sa doomu baay. mu añaanal teraanga yi ak jam jam gi ak victoire bi nga ci am. Hmm. te ñoom dama bàyyi ñoom lañ daan wax kaaleel ngeen tiim ko di ko fëggal dënn bi. Mm-hmm. ay tiim ma. la ndax dañ koy fekke dañ koy fekke ndax bu rafee rek ñu mën na suñu doom bàyyi diw dafa rafoon keroog. oh. ko daal ñëw indaale as caatu caatu mooy paaka. boole paaka bi ak sowee. Mm-hmm. di ko dompe ki ñuy ki ñuy jam. waaw ngir bëgg rek mu raf. ngir bëgg rek mu raf. nga xam ne bu rafee rafut ci njam li waaye kaata walay raf. ndeysaan waaye dañ ñaan njam li lay daw njam li lay daw pour ñu xas la ko benn benn ko la ilaha illallah di ko woyal yaay tiim ma yaay tiim ma oh. bokk ñoo bokk jom yaay tiim eh. <laughs> hmm. mooy liñ lay nettali hmm. jor ñu la koy nettali kay fekke ko ñëwal fekkeel ko sa bopp oh. yaay kaay taxaw timma yaay hmm. kaay taxaw timma xam nga xam nga oh. euh, ci turo biit yi ci mondial bi waaw di nga ci entraîneur boo xam ne ba gis benn responsable boo xam ne hmm. moom day sëgg du bëgg gis <laughs> du bëgg gis tir bi waaw waaw hmm. ndax mënu ko supporter kon kii boo yaay timma loolu lay yëg moom itam très bien naan xujj mën na ko yaay tiim mën na ko yaay tiim <laughs> oh. yaay dama ne tiim ma ba tax ki koy waaye da koy baamtu yaay tiim ma yaay tiim ma ndeysaan su ma tax ngay woo sa yaay pour mu tiim la mu ne su ma naree daw. Mm-hmm. dee. Mm-hmm. ñoo bokk jom. waaw ñoo bokk jom. ker bi président di joxe drapeau bi daf ne daf ne daf ne ci joueurs yi. Mm-hmm. daf ne joueurs yi. ñun dañuy rey. waaye toroxalam du nangu kenn def na ko. abadan abadan. mun moo ko làkk ci français na wallaay ndeysaan on on nous tue, on nous tue. waaw on nous déshonore pas. jeex na. waaw ndeysaan sax dafa benn phrase bu ma mos a dégg benn xaw ma a invité mu ngi ne su ma juumalee yàgg yàgg na. mu ni tubaab bi euh, général de Gaulle. Hmm. bi mook mook euh, Hitler. Hmm. daf ko ni woon si ce n'était pas les no les noirs comme des fourmis ribes comme des lions des des lions c'est bombarder la France et les se mettre dans le butée cent centimètres. waaw waaw. mu ni bul woon ak. <laughs> nit ñu ñuul ñi. waaw bari ni sànqal yi. Hmm. di songe ne gaynde. Hmm. waaw kon dinaa bombardé France. def ko ci bitel kon ma def ko doom ma def jax doom. allahu akbar loolu nag noo ko defoon. Hmm, ndax suñu jom. te jàkkaarloog tubaab bi Mbàkke. muy xëy di bombardé ba midi ñu ne nañ wàcc. ndeysaan. Uh, suba nu xëy. mu bombardé ba midi mu ne nañ wàcc. ndeysaan ba mu yàgg mu ne xanaa nit ku ñuul du dee. ndeysaan mu ne ko déedéet nit ku ñuul du dee. est-ce que mu ne kon teg naa ngaa nay ci suuf parce que ñu mën maa xeex ak ñoom. ndeysaan suñu jàmbaare ñibbi si. 44. bi ñëwee ak si tubaab bi ne kon yéen bu jara waral war naa leen a fay. dajaleel ma leen fële ci caaro yi. ma fay leen ñoom ñëpp. ñu taxaw ñoom ñëpp ndeysaan. solo seen colee na ko noo ngi nii. ñun ñi la tàqaleeg Allemagne. ñoo nekk nii taxaw. jàmbaar yaa ngi nii. looy def ci ñun. mu ne xanaa ay bali dënnu. oh. ay bali mooy moom dafa gore wut. Mm-hmm. ndax kon mu fay góor bu tubaab gore woon. Hmm. Hmm. visa visa France. Hmm. ab Sénégal du ci am deux deux deux heures de temps. wallaay kenn du ko du laaj sax. ah mais oustaz si loolu kay bul sori. coupe du monde bi kay. waaw xool équipe France bi. ndeysaan jaar na ñun ak ñoom yàgg nañ. yàgg nañ caaram tàqale wuñu. yàgg nañ yàgg nañ. waaye daal ak kon nag gore. ci gore amoon. gore am ci. yeneen mbir lay doon. mbag bala ba nga dem. <laughs> parce que bëgguma nga yem ko foofu rek. kan mooy Cheikh Omar ci ci ci Afrique. Hmm, kuy Cheikh Amadou Bamba da ay ci ngor. voilà ci waaw kuy Cheikh Hadj Malick. waaw hmm. ci ngor ci Afrique yëpp ñu bokkal li def ci lislaam ndeysaan ak noonu tubaab. ñooñu. Hmm. dañoo feeñ jamono. feeña noog Lat Joor Ngoone Latir Jóob. Latir Jóob di wane. ngor ak jom. waaye ci côté ceddo. ci côté ceddo kon daa am jom joo xam ne oustaz <laughs> mooy li ma doon indi oustaz mbay dugalaale ko ci lii. jom joo xam ne jomi ceddo la. moom xay na jomi nit la. waaye du jom ju diine di encouragé. très waaw maanaam waa ji day. man la daal man naa ne ci bureau bi rëy waaye mm-hmm. joma ko tax a mm-hmm. naa bañ a nangu dëgg waaye joma ko tax du nangu dëgg boobooy jom jooju talaatay ndeer waaw mm-hmm. ba jigéen ñay taal seen bopp ca biir néeg wallaay ndeysaan jomi ceddo la woon la dëgg la waaye nag jom nga fa nekkoon waaw benn tubaab du ñu takk di yóbbu dëgg la ay naar la woon Moussa waaw mu nga benn naar du ñu takk di yóbbu dee <laughs> ci néeg benn ko gën a waaw sa hadiis ba mu doon wax Euh, xayrukum fil jaahili xayrukum fil islaami <laughs> léegi nag bi sunu mag ñi feeñee jamono hmm. Hmm. ñi ngeen tudd ñëpp hmm. daal di ñëw nag ne ah ndegam ceddoo mën a am jom rawatina lislaam seetal lii rek génneel ñu ko kulóoral ñu ko wan na ko ba ñu xam ne ndekete ah lii kat ndekete ñoo ko gën a soxla ña koy soxla dëgg la ndax ñee bu dee takkaay ci ñoom benn ñun yéere la ci ñun trois morceaux ak leneen. ndeysaan moo tax ñoom koo ci dugg ci këram. Mm-hmm. fekk fa ngor gu fees del. Mm-hmm. jom ju fees del. Mm-hmm. radiyallahu taala anhu. bala bala ngay jël mbaa ma jot la nuyoo nuyoo sëñ Mbaye Abdou. waaw. Mm, gisee nañu fa yi passé. waaw euh, fële ca Tiwaawan. ndeysaan dugal na ma ba ci kàggu ga. waaw tabaarakallaa mu waxtaan waxtaanu daara. ndeysaan mu wane mbégteem ci sunu jotaay bii. ndeysaan ak yeneen i jotaay dañ koy am ci rajo bi. ndeysaan noo ngi noo ngi bëgg nun tam. <laughs> ndax ñi mel ni ñoom buñ bëggee ci noonu. Ah, ñu ngi ñuy encouragé. dëgg la du dëgg. du yokk njàmbaar. <laughs> ndax noo leen nekkal fii. <laughs> nu nekkal nu foofu mm-hmm. loolu la ma sunu góor ga sunu maam ja sunu wajur wa. Mm. sëriñ Saali waxoon. sunu sëriñ allahu akbar radiyallahu taala mu mm-hmm. fu doomi soxna nekk. Mm-hmm. na yëg ne doomi soxna yëpp la fa nekkal. terrain bi yaatu rek. Mhm. ñu nekk ay ay poste kii gardien lay doon. Mhm. ñu ay défenseur ñu milieu de terrain. ñu ay attaquant. ndeysaan. <laughs> duggee ñëpp a bokk. ñëpp lu am solo la oustaz euh, fi ngeen toll noonu ci wàllu ngor ak euh, gore. Mhm. ndax oustaz baatu gore bi daa ñëw ba indil nit ñi léegi ñu am problème mu baatu tekki mooy lan mhm. nga xam ne nit day jaay jomam ji nga wax nii mhm. jaay ngoram mhm. foyee boppam ba noppi ñu wooyee ko ku tekki nga xam ne léegi kooku la ñuy tagg kooku la woy kooku la ñuy kañ ki toog ki ru xam nag moom fas yéenee dunde ngoram ak jomam euh, ak sàmm ab deram ak askanam ñu jàppee ko ku bëggul dara wala ku tardé ndeysaan nga xam ne li ma waxoon ne ci wàllu jaam léeg-léeg boo koy seetlu ba ba mu yàgg da nga naan maanaam gor ñi ci boppam ñooy jaam ñi waaye jaam ñi ñooy gor yi ndax ca xare ba ku dawoon samp saw xel ba kenn jàpp la yow dañ lay tàgg ëllëg ne la yow as gor nga waaye ka risqué woon bañ jàpp ko yeew kooku dañ ko naan ab jaam sax daa mel kon wàllu goreek ngorit ak wàllu tekki it mat naa waxtaane seeta lool parce que dem dañ ma envoyé benn benn benn vidéo mu lay won africain yi jéem a dem bitim réew mm-hmm. ba des ci géej gi géej gi li leen génne. li leen génne wala hmm? gis naa ko. Hmm? ndeysaan oxo moo yàq sama añu bis boobu. loolu jom na moom wala lan la. mbàkke jom. Hmm. nit mën naa nekk fii ci réew mi. tedd fi teraanga jot sa joma la ko may. Oustaz Alioune. bi saaba jógee màkk ñëw Madina. Ah, lu ñu àndaale. dara mbàkke dara. wallaay oustaz kenn ku ne sa mbuus nga ngàpp lu jeexaloon ca dëkk bañ nekkoon bu alal ji ba lañ fa bàyyi wallaahi yaa ngi doon nettali Abdoulaye ibn Awf waaw dañ ko gare ne ko alal ji mbaa sa bakkan waaw kere bi ñu ñëwee Madina mhm. sëñ Mbàkke mhm. am seen jom mhm. am seen ngor bokk na ca ngor ga dafa am ko ne moroom ji maag yow la yonent bi seexale mun a mun ne ko kaañ dem tool mu defe da koy bayloo mu ñëw mu ne ko tàndarma yëpp may borom. nan ko ànd maag yow wàññi ko ba mu àgg. bu dee ñun fukk yaa moom ñaar fukk yi. bu dee ñaar fukk yaa moom fukk yi. Oh. am ngor lool. Mm-hmm. ko jërëjëf. lu baax a ngi waaye kenn du la may lépp nga jël lépp. Mm-hmm. mu ne kon nag kaañ dem ginnaaw indiwoo soxna man maa ngi ak ñaar. Mm-hmm. bu ñu añ. bu fekkee am na ci koo nopp ci ñoom ñaar fabal dara teg ci kanamam rek ma xam ne kii la ma yeewi ko bu iddaam jeexee nga jël oh. bi ànd waaw mbokkoo goree ngi noonu ak ngor très bien <laughs> la ilaha illallah ah. oh. ah? wax nga bii exemple yooyu am ci sunu ñooñoog sunu yooyu mm-hmm. sunu mag ñi magi tey yi magi démb yi sahaaba yi asalafu saalih ah ataabiuuna da nga ciy dugg di ci gis yoo xam ne jamonoo ko soxla oustaz Aliou xoolal kii rek yonent bi ko seexale ak moom kat mu fas yéene ba ne ko sama soxna yi naa fa ci kenn nga jël la ilaha illallah lu yéeme na oh. lu yéeme na mais oustaz damaa xamul oustaz Mbaye ndax dañoo siwliise léegi moo tax euh, yooyu yu baree bari jóge fi ci wàllu ngor booy xool ci penc mi jigéen da daan wax ne jomb na maa sol loo xam ne sama yaram day ni ci bitti. nga xam ne même bu ko lislaam téréwul woon. Mhm. moom moo ëppale boppam góor ñi di gis ay awraam ci mbedd mi. Mhm. Mhm. góor ne jomb na maa def nangam ci penc mi nga xam ne même bu ko lislaam téréwul woon ay jikkoom ak ko tere. mais oustaz damaa xamul ba xam civilisé la. wala loolu bu dee lu ñuy nàmp la daan ci yar nit dañ cee yaratul nit wala lan mooy problème bi bañ tàmbalee ñàkk. lii problème bi jërëjëf. ñun dañoo fexe ba am ñaari néegi defarkatu nit. ñaari centre ñaari néegu defar ko. centre waaw centre formation. Hmm. benn néeg bi tubaab bee ko samp. lii mooy nit. Hmm. ko defee rek ñu ne ko loo loo bëgg a mu ne benn un citoyen hmm. néeg bi tudd daara. ñu dama bëgg defar nit. koy defar mu ne muslim. ah. nag tubaab bi jumtukaayam dafa ëpp. kee jëntukaay bu bu ko defee li ci tubaab bi bu àndut ak orientation yi mu war a àndal daf lay def moom ni mu bëgg nga mel ko waaw citoyen rek bu àndee ak orientation nag man ngaa jàngal la muy jàng lam lay jàngal ba noppi mhm. desi nga ki nga doon waaw nga doon oustaz ci ni nga sëñ Baye waxee léegi ci même ba ci jigéen ci sëy jël exemple Fatimatu bint Rasul mhm. sallallahu alayhi wa sallam mhm. jëkkëram moo gënoon a ñàkk ci kaw suuf muy Seydina Ali karamallahu wajhahu papam gën ci nit ñi te ba montagne yi sax di ko woo naan ñaan yàlla mu def ñu alal nga moom ñu. muy xëy doomam du am lu mu añee. wallaay ndeysaan. keroog keroog ba mu fayee kay. ba mu fayee ñëw. keroog ba mu fayee. suñu mbàkk. ndeysaan moom man de gis nga sama loxo yi nii. ndeysaan. fu ne futt na fa. dëbb naa bay bëgg a dee. papa mu ne am na ko léeg ñu am ñeent fan duñu añ. ma bëggoon ñaar. nga may ma ci jaam yi ku may soqal <laughs> may ma ci xar yi lu may rat ndeysaan bàyyi ji ne ko ah, waaw bàyyi ji ne ko jógal ñu dem mu topp ci def na ci xar yi lañ jëm ndekk kër ga lañ jëmaat bàyyi ji jiitu te kenn mënut a doxandoo moom ndax da doxu yonent bi dafa gaaw sallallahu alayhi wa sallam ci kër gi mm. fàtte mooy ñu ko kadaw ba ñaxtooy xepp ak si mm-hmm. mi ngi fekk Seydina Aliou tëdd mu ne ñokki di bëgg jog mu ne ko jëru ko ndax du mm-hmm. yàgg daal ne Fatima toogal fii sama wet ci lal bi li ma wax si jëkkër ji di ko dégg mm-hmm. <laughs> sooy tëddati da nga naan subhanallah 33 alhamdulilah 33 allahu akbar 34 daa dem ñibbi Fatima ne keroog nit ko fay di wuti ay xaraki jaam. waaw ñu lay jox yi baat. ñu lay jox ay wér. <laughs> ñu lay jox dog. <laughs> naan jël <laughs> naqaree dégg la oustaz. naqaree dégg oustaz demal te ñëw daa mel ni yaa ngi yëngatu. daa am na solo trop jërëjëf sëñ Mbacke. Ah, ah, kon nag bu leen toxal seen ak déglu fañ dem duñ fa yàgg incha allah euh, simili yu gàtt lay doon. aman safa wa sahbihi wa sallama tasliman jërëngeen jëf ci seen rajo juróomi simili moo te moo euh, de fukki waxtu jot oustaz Alioune lu ci tege mbokk xanaa kay ba max mu jàll rek incha allah suñu bàkke waaw ci simili yu néew yi nga xam te moo ci des xam oustaz yaa ngi doon am am solo ci soxna Sayyidatuna Fatima ci ngor gi nga xam te ne ak difficulté yi mu nekkoon ci biir négocié mhm. mu mel kon oustaz jigéen ku ko ñee rek mos nga koo yërëm. Mhm. dëgg la te it wàllu ngor dañ ciy dimbali nit ndekete. parce que boo dañ ko cee dimbali. dañ ko cee dimbali keroog bi ko bàyyi mu ko mm-hmm. am xar jox ko mm-hmm. ab jaam jox ko mm-hmm. daf ko jaam ya xar yi du moo la fi indi ngor fi indi góorgóorlul te itam jàpp ci sa kër bii nga defar fële moo gën ceew nga defar fii mu tax mu jox ko sa bi ndax nga defar fële. mu hmm. gën nga defar fii mu ngay defar fii. oustaz daañu war nañu mën ko gannaaw dellu këram. est-ce que tam goro yi ci ci ko masar xool foofu rek. Hmm. <laughs> Mbacke est-ce que goro yi tam waruñu mën a xool parce que nga gis góor goo xam yàlla da koy mën a gan. mu am taraanga doomam di seey ku mel ne Mbacke Sylla hmm. muy gobar jaasi. nga bëgg ko woon ne que sa jëkkër ji waroo fi woon dugg. ba moom buy def doomam lay defal doomam lay jëflanteel mu mel ne moom mi ngi ci këram waaye loxoom nga ci biir kër gi est-ce que loolu dina tax sa jabar respecté la. Euh, bu fekkee da ngay dimbale sa doom. ci sëyam bul di teg ya nga koy dimbalee ci loxoom. bu fekkee da ngay dimbale sa frère ci këram. bul teg ya ngay teg ci loxol jabaram. yooyu tege na tege ci loxol ko góor ki yor kër gi. lu am solo la. Mm-hmm. ndax boo ko dee teg ci loxol ku jigéen ki. mën na caa xeebe jëkkëram waaye boo koy teg teg ci loxol jëkkëram mën na ñàkk xam lu xew jëkkër jiit it bu amee jom ak ngor loo ko teg ci loxo mu jëm ci kër ga ci kër ga la jëm bu amee jom ji bu amee jom ji loo ko jox ci kër ga lay jëm bu amul jom ji nag boo ko joxoon deux millions mu jëm sa kër ga dara du àgg kooku jarul dimbali mëneesu ko sax loolu moo moo yàq sax ndimbali léegi ndax bu njëkk dañ ko daan def jàppale sa doom ci muy sëy ba baa mën a taxaw bu dee ko góor nu nga ko jàppale bu dee ko jigéen nu ko jàppalee mm. waaye léegi boo boo fabee ndimbal li teg ci loxol kenn kooku léeg-léeg bu amul ngor ak jom ndimbal ga du àgg ca kër ga. du àgg na ko jàddal def ci yeneen yoo xam ne moom la jàpp ne moom la ci war a def. Mm-hmm. waaw am na solo de di lu am solo kon oustaz jom ji ñoon waxtaane ak ngor am na solo. xam naa fi ñuy bala ñoo tëj bunt boobu bëggoon naa nga misaalal ko nag jom jomi léegi tey. su fekkoonte ne dañoo ñëw ñu ne Oustaz mbay lañ fal ne ko tey yaay directeur bi wala ñu ne ko yow lañ fal ministre bi wala ñu ne ko yaay nàngam moom ban jumtukaayu jom la war a amee ak ngor ci responsabilité yooyu nga xam ne moo ne ci kanamam. mooy lii ngeen ma jox danaa wax ne dërëm lu sànku danaa dem ci of nag wax leen li ma am bu génn jotee danaa jar ci kër yi ñu seet li ma am ma dugg ci biir yëf yi xaaxam bi génn ak sama garam bu ci duma taq benn xaaxam. est que nga xam ne moom day am yéene jom jooju population beeki mbokkam it dimbali ko ci dimbali parce que léeg-léeg nit bëgg am jom waaye ay xaritam xañ ko jom ji waaw wala ngor gi ci jàpp ne da ngaa war a tedd da maa war a defal mm. léeg-léeg sax nit ne jor nga na ma jox ay marché na ma def nangam ba dugal la ci guuta goo xamante ne fi mu ne daanaka ñi caabi féete ginnaaw yëpp ñi ci ëpp seen i nit a leen ko yóbbu waaye du seen yëfi bopp santas yooyu santas verbal yooyu mm-hmm. Mm-hmm. moo gën a métti ci li ñuy def nit ci santas wallaahi wallaahi oustaz mooy fexe ba def loola dara ci ci kees gi nga moom. Mhm. te nag boo deful dara sax dañ naan dafa ñàkk fayda. Mhm. du ña fa ñàkk fayda. waaw ah, wala dafa bon waroon na maa mën a defal na def nangam. jërëjëf <laughs> jërëjëf Sass. kon nag bu leen toxal seen ak déglu fi ñu jëm ñu fa yàgg incha allah. في في المدائن سافع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اجعل هذه اللمدة جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى سعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرئت أو كتبت أو نسر إليها أبدا آمين يا رب العالمين وجعلها مما تتقنا بها هور العين والولدان في الجنة التي وهد المتقون وجعلها من أحب السكر إليك وإليه عليه الصلاة والسلام بسم الإله ينمو لها بلا مناي ولا انتهاء بسم الإله ينمو لها بلا مناي ولا انتهاء بسم الإله jërëjëf ci ànd bi ak si FM seen rajo mu ngeen xoolee seen montor juróom benn simili juróom ñaar moo teg ci juróom waaw moo teg ci fukki waxtu kon nag Oustaz Alioune lan moo ci tege jaajëfal Issa Dieng bu baax a baax rédaction bi ñu ngi xaar rek fekk onze heures Aliou Diarra ak daa ñëw tënk xabaar interi yi balaa boobu ñu jël wàllu auditeurs te muy deuxième partie sëñ Mbacke. deuxième partie sëñ Mbacke kon. ok Oustaz jëf xaaj boobu mooy xaaju auditeurs yi dañuy jaar ci téléphone bi ci 88 628 98 98 bu dee waa bitim réew. kenn nga noonu. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Tukulóoru Baye. waaw kay. Oustaz Alioune. na nga def waay. maa ngi sant yàlla njaboot gi. ñu si ñu ngi sant bu baax. parce que bisimilah bisimilah ana ana sëñ maa ngi maa ngi lay fay. maa ngi lay delloo jërëjëf jërëjëf. di nuyu waa Diourbel yëpp. ñu ngi lay fay baax a baax. waaw nuyu naa Oustaz Alioune Sall. jërëjëf mu ngi lay fay Tukulóor. waaw kay tey rafetlu jotaay ah, <laughs> dara. rajo baa ngi Diourbel moo tax. Ah, rajo bi dafa egg Diourbel. 94 point 1. maa ngi leen di nuyu ah dama faa nekkoon di. ah boo ko xit. jërëjëf. <laughs> mos a soppeeku bisimilah bisimilah ci laaj bi. ayca ci lañ jëm si ñu jëm ci sorotu Rahd tey. Rahd. aw fan war a ñett. 33. waaw. Hmm. maa ngi man ci afaman huwa qaa'imun ala kulli nafsin bimaa kasabat. d'accord. ma bëggoon nga dem ba ci 44 bi nag fekk mën naa nekk wa maa lahum min allahi min wiraaq. incha allah. di ñaanal baax a baax sponsor yi gën a gis seen bopp ci biir jotaay jër ngeen jëf. jërëjëf Tukulóoru Baye 88 628 98 98 Mbakke jël kooku. foofu la ñuy jaar bu egsee ñu dalal ko asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah Oustaz Mbakke. bisimilah docteur. ñu ngi leen di ziyaare suñu aaya ba xul lan yusibana illa ma katabalaahu lana. wa mawlaana wa mawlaana wala lay falyatawakkalil muminuun. sadaqa laa di ziyaar Oustaz Masal. est ma que. borom yu am solo yi. est-ce bu neex di Oustaz Alioune <laughs> du fay impôt dégg nañ français yi mu wax bi. mu ngoog. <laughs> Eh, eh. yé yéeme na foofa daal di àggoo foofu nag. seetal lii rek. Eh, di ziar Mbàkke di leen ñaanal ànd bi yàlla na ko yàlla yàggal. amiin amiin yàlla sàmm leen suturaal leen. may leen milliards yooyu oustaz di ñaan. amiin ndax lépp ci diine lay jëm di joxe ziaru ahlu sàngal kam ak Malika imam Ali ba Safiyatu. ndeysaan ñoom su kay na taan ma ci lay aram nduur fàttewuñu kenn. yàlla ndeysaan di ñëw ci laaj bi rek. Mhm. Eh, ñaari laaj la benn bi alxuraan la. Eh, Ali Imran la dem. aaya cent cinquante téeméer ak juróom fukk ak ñaar commencé war a sa doxawuma laa wax de baneen bi mooy dama bëggoon a xam cosaanu émission bi nga xam ne moom la ñuy déglu nii tay bis bu nekk ñu tudde ko alkitab ma gis ni alxuraan da ciy saf ndax bi ko bi ñuy jël sabab bi alxuraan a taxoon am dafa am leneen tim luñ ci luñ ci yéene woon loolu daal laa moon ci lu may laaj di leen sant di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu

alhamdulilah waaw waaw ñu ngi de lay <laughs> jaar baax. ana ana waa Rome. waa Rome ñu bu baax. mbaa foofu tàngul mbaa tàngaay wàññiku na. ah man loolu la tàng tàng la booroo taw la la def. ah war ngeen a ñaan kat <laughs> moo tax nag. ndeysaan dëgg la kay. di siwaar Mbacke si la di siwaar Paal. jërëjëf ñànga. moom fi ñu jël baax na trop moom fi ñu jël moom goro ak moom lu am solo la moom. ñu ko doon wax la wax dëgg yàlla naka la trop ñu woon di soir bu baax nag. mu ni nooy na. man fi gars yi yéen nooy moom kay saar loo xaw laal na tuuti affaire ka caare boobu ñu ko ñu ko loo rek seen xol daal di. xaw a caare bi kay moom. moo tax moo tax yàgg ko moom da nga bëgg ko bàyyi. wallaay wallaay supporter wu France man. ci dara ndax dañoo man ñu ngi ñu ngi gagné. mooy sixième mooy sixième cinq mooy sixième équipe africaine de. loolu la bëggoon la. surtout mu jaadu la. waaw waaw Fatou. ndeysaan waaw. avant nag bu ñu yëgati nag benn waaye mu ne dafa toxoon ci kër. léegi julli ngoog julli yëpp nag nekk du mu teg penku léegi après ñu wax ko si di penku mu laa ndax julli yum julli woon da koy baamuwaat wala julli woon na. waaw waaw. kon boobu wala waa Ndefleng jàmm ñu ngi leen si bu baax. jërëjëf ñàng meng ima li rom lay wootee ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ci duggam bu am solo boobu. di nuyu waa bitim réew yëpp. wallaay ndeysaan ñëpp kay sax soppe yi. mi nga Argentine ah. waaw Argentine waaw Messi xam nga. waaw naa la wax sax li mujj waxtaane xanaa nag tey nga may bari Messi. tey nga rey ma rek làkk lañ doon làkk maa moom nga yaakaar. lu ma ca xam. Messi xanaa war ngaa xam ne mbokk ñi sant si la. ñu kii dañoo ma laaj ay ba ba. salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu. bisimilah yaaram bisimilah waaw yaaram. waaw kay man la taalibe Cheikh Sopé Cheikh Sidi Mokhtar. ah kay bisimilah. maa ngi leen di nuyu leen ziar. jërëjëf jërëjëf ñaanal yàlla defal leen jàmm. amiin. ok tey dama xamutoon wax ci série télévisée yi nga xam ne léeg-léeg yow boo koy seetaan toog sa si biir famille sax léeg-léeg da ngay am kersa. Mhm. boo toogee say waajur léeg-léeg message yi ñuy jàllale nga xam ni dëppoo wul ak diine dëppoo wul ak lislaam mooy yu sénégalais yi wala yu tubaab yi waaw yu sénégalais yu ah. sénégalais am na ci bu siiw bu ñuy wane yu am mardi ak samedi waaw yu xew keroog dama gis dama gis keroog papa di jullit jox permission doomam bu jigéen pour mu dem weekend ànd ak koo xamante ni si sëyuñu dëgg ak beneen boo xamante ni dafa mel dañuy bëgg a jàllale message boo xam ne dañ naan euh, mbëggeel daal amul barrière donte ku jigéen ki moom moom ak ki muy bëggante donte bokkuñu diine seen mhm. bëggee laa war a am barrière ba mhm. war nañ koo mën a xeex ba def naka su noonu daal mhm. muy ay kii yu xaw a doy waar yoo xam ne dama bëggoon rek mu wax ci tuuti rek di jéggalu ñëpp nag am na solo jërëjëf taalibe Seex ci duggam bu am solo boobu ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ñu ngi koy nuyu baax a baax sopp si leen maxtaar yal na yàlla doole ngërëm ñoom ñaar ñëpp Seex yooyu tubaarkalla asalaamaaleykum maaleykum salaam Oustaz. soxna si na nga doy sant yàlla lu bëree bëri dama bëgg lépp tur bi man la madame Jaxate. madame Jaxate Ibou Jaxate la sañ tudd. Ah, dama amoon laaj bu ma waroon laaj Oustaz rek pour mu leeral ma. ayca bisimilah. Ah, sama jëkkër dañoo ñuy jotee wowoon naa Oustaz mais dama koy woo duma ko mën a jot. Hmm. Ah, dafa may tong toujours. Hmm. waxuma la ay weer de wala ay fan mën na ma tong ay at. Hmm. bi ma demee ba laaj ka lan moo waral lii dafa ne ma yow sentir tuma la. ay gore su ma tëddee yow sa mel na góor laa tëddal. ma bëggoon xam oustaz loolu waxin boobu lan la ma ciy wax ak moom bu may digal lan la ma ndax sëy bii sëy naa ba sonn mais mënu ma am satisfaction man rek man maay sëy mais moom bu gis li may def bi ma waxee loolu nag lu bëri dafa jóg ci man dafa génn ci man euh, maanaam bu fekkoonte ne bëggee la lu bëri dañ na ci man mm-hmm. ma doon laaj oustaz tamit wax boobu nan la ko lislaam di jàppee si ñë si diggante ñaar ñuy sëy loolu laa doon laajte incha allah oustaz ci ñëw léegi madame Diakhaté bég nañ ci sa dugg boobu ñu ngi koy jaajëfal baax Imaam lii 10 heures jot ba teg fukki simili ak juróom. waaw kon ci ngeen jaar ñuul kooku. asalaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah. yaaram. sëñ Mbacke. naam. Dame Mboup. Hmm? waaw macha allah. bisimilah Mboup yal na yàlla nangu si yaar. waaw na koy tey. da ngeen def baax a baax. bayeen bi. jàmm rek. alhamdulilah. mbuub nag wuub de. waaw mbokk mi da doon laaj mu ni. ki nga xamante ni si saa yu tëdd moom day taal alxuraan di ko déglu. mais buy nelaw moom du ko jot a fay. muy laaj ba xam loolu lu gën la wala lu mën a ñàkk la. d'accord. waaw ñu leen siyaar baax a baax. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal sëñ Dame Mbuub Imaam Ali. di ko ndokkeel di xaar keneen ci ginnaawam imaam li jël ko. wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. 3 313. sëñ Moustapha na nga def. leen ziar bu baax di leen bu baax. alhamdulilah Mbaye. juróomati oustaz ci ko ñaanal gudd fan ak wér. Mhm. am na ko wàlla fay yu. Mhm. nii la ñuy yal na ko wàlla sagal moom. amiin. di wax rek ni laaj bi may laaj. Mhm. ndax góor am na droit mu ne taamu ne jigéen bii laay takk ndax alal. Hmm. comme tamit mu ne man ku kii da ku am alal kii daal damaa bëgg ku may takk daal damay takk kuy liggéey wala ku am alal daal. Hmm. ndax góor am na ci droit. d'accord beneen bi mooy jum juma. Hmm. nan lañ koy waajale parce que ñaare da gis ñu ci bari ne ñoom julli bu julli juma rek la ñuy julli. bu nga amoon beneen julli bu ñuy julli lu dul juma rek lañ ci taamu daal. dan ñu ci ustaas bi leeral waaye ci loolu ñu ngi gërëm ñëpp di nuyu Assane Diop asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Moustapha Mbaye jërëjëf dix heures jot ba teg fukki simili ak juróom-ñaar am na mbokk muy rëppatal di ñëw nee na agsi na Oustaz Alioune waaleykum salaam wa rahmatullah waaw ah, waaw waaw maa ngi nuyu ñun ñetti Oustaz yooyu yëpp ñoo ngi lay fay bu baax a baax Oustaz Sylla Oustaz Mbaye Oustaz Sall ndeysaan siis ak borom baatu or googu maa ngi koy nuyu bu baax a baax. ndeysaan euh, Moussa Ciss. waaw. <laughs> Moussa na waa Furum. dina jox ni yow waa Morala yëpp nag. ak waa Furum. ak waa Furum hey ñooñu ñu ko sopp ko sopp nag bari nañu ko. <laughs> ndeysaan Oustaz Ousmane Faye imaam la imaam ratib. ndeysaan jërëjëf jërëjëf na imaam de ay mbayeen. waaw bañ a laaj euh, laa amoon tey mooy. Mhm. ñaari commerçant ngi nii kii daa ubbi magasin kii dem ca marché jaay. mais ki ubbi boutique daal moo gën a neex njëg ki dem ki nekk ci marché ba rek bu nekkee da koy xeex waaw man mi yor sama xaalis rek war a jënd su fekkee gis naa kii bi jaayee cent franc ma gis kii bi jaayee nu mu tuddati soixante quinze su ma demee foofu di jënd est ce que man am bàkkaar wala est man mi dem jënd ku ma neex est ce que am tooñ naa wala déet. daa dama gis kat commerçant yi wax dëgg yàlla booy xool saako ngooñ tey avant cause mi ngi jar cinq mille euh, trois mille su ma gisee kuy jaayee nag quatre mille ma dem foofu jënd naa wala am naa bàkkaar d'accord salaamaaleykum <laughs> salaam wa rahmatulah Ciss ñu ngi koy jaajëfal Ima Ali di bëgg ci dugam bu am solo boobu di taaxeelu yeneen mbokk yi tocc toccal ñu ñëw indi seen i laaj. ndeysaan ndeysaan wuyu ko. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. bisimilah bisimilah. Cheikh Diatta. waaw sëñ bi. waaw naa leen jërëjëf kan la. Oustaz Aliou Mbaye. ah Cheikh Tidiane Diatta. waaw waaw Cheikh Tidiane Diatta bu <laughs> ah, yembal jërëjëf. Ah, nam naa baax baax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. ñu leen si ah, jàmm jërëjëf jërëjëf Diatta. alhamdulilah ma ne dama amal ñaari waaw Cheikh. benn bi de mooy euh, comme boo dana laa distance bi nga war a xool ñaata ñaata la war a tolloo. distance bi nga war a xool. waaw fi fi fi nga taxaw di julli xam nga des fois da ngay julli nit di romb nga catal ko wala des fois nga xool fu sori. di catalaatee ka wéeru wéeri daal. voilà c'est vrai bon moo ko gën a xam. Hmm, déedéet tey yaa ko <laughs> waaw mooy. Euh, kii dafa am problème ak soxnaam. Hmm. mais moom day ñëw di la expliquer di la wax. Hmm. waaw jaata. suñu ko bi. goro bi itam aussi tam boo demee moom dala naa hmm. loolu laa loolu lépp comme a diggante a tax na wax boo taxawee dañ naan naa wala soit dañ naan hmm. a taxawee jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñaari way dencante yu réeroo nan la ci nit war a taxawee 88 628 98 98 salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah bismillah Oustaz ñoo ngi leen di nuyu jërëjëf Oustaz Mbacke hmm. ak eh, Oustaz Alioune. ndeysaan jërëjëf. di ñaan ñaan bi nga xamante ne suñu wëllëri. Mhm. maam Mor ja di leen koy ñaanal yàlla na ci yàlla dugal te yàlla def ko. ndeysaan ñu ngi koy nuyu baax sëñ maam moom itam. seen mbokk bu ñuy wax Bawol Bawol moo leen di nuyu. Bawol Bawol. di ñaan suñu kàddu fekk leen ci jàmm. <laughs> Bawol Bawol nga tudd wala da nga faa dëkk. <laughs> waaw <laughs> dama faa dëkk. da nga faa dëkk ah d'accord dëkk ga neex ma. Uh-huh. tur neex ma. Uh-huh. mu daal koy tuddee noonu. mel ni nañ turi ba ànd ak loolu. dañ ciy waxtaan ak ñun bawal bawal yi xam danañ. xam nga gëjal suñu bawal gi def ko <laughs> xam nga Mbacke si la. <laughs> am na waaye Mbacke bawal am na. Ah, waaw kon day moo tax ma jël bawal bi. <laughs> kon baax na kon baax na jërëjëf mucc ci yow yomb. Oh, waxtaan na tey li ma ci gën a neex. waaw dégg sëñ Mbacke yaakaar naa moo ko wax ci biir wax bi. mooy moomu jom. Hmm. ndeysaan te mu mu nekk loo xam ne daf ma ñulug. Hmm. ba ma ko déggee dutuma moom sama bopp moo wax ne dama dégg benn xiisa bu baax boo xamante ne xaw ma am na xaw ma amut waaye dama ko dégg te gëm ko ñu wax ne Seexuna Cheikh Ahmadou Bamba bi ñu ko yóbboo ci ñuy wax euh, soxna Issa Dié di waajuru maam Cerno hmm. dafa am seede bu mu defoon moom hmm. dañ ko waxoon ne ko sëriñ bi bi ko yóbboo hmm. mu ne moom xamut ak wilaaye xamul dara waaye doomi soxna jaara ji mu xam ak maam mënut am sëriñ wóor na ko ne ku ko nakoraan bi yóbbu luñ ko man di teg jomam jaatal na ko tey kon daa mel ni tukki ba moom jom ci la bokkoon. Mm-hmm. comme damay guddal damay laaj ne damay laaj man ndaw laa. Mm-hmm. ñëw ci benn jumaa joxe dama fay jullee imaam bi ñu dem ba jëmmi jamono mu ñëw di julli ci paal courant bi pàkkut mu julli ba pare xool ma ci diiri bët ne ma yow ndaw lii kat ci réew mii nga dëkk nekk fi amoo droit seetaan ba ka nekk tey ca pale ba wala mu nekk ca ministère ba du taalee courant mu tàkk nga ñëw ci jëkk ji te koo fi courant kon dangaa war a génn ànd ak man ni jàkkaaroo moom ma jox ma courant bi imaam boobu damaa toogaat ñaari weer saay du ma ñëwee duma ma du ma ñëwee su ma mën a jàpp damay tiim wala ma wuti loolu mu ne ma nan muñ jamono moo ko laaj may laaj imaam boobu man ndaw li nan laa ko war a xoole ak lan laa ko war a tontu asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatulah bawol bi ñun xam naa xam ne xëy na Oustaz Mbaye dégg ko. waaye aw jaxa ki kàll la gën a nuróo ki taalif jëlal kooku xam naa boo ñëwaatee ko mu di laaj kese. Oustaz Oustaz waay Oustaz war na ko dégg Oustaz mu ngi doon bind. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah taala wa barakaatu Oustaz Mbaye. waaw yaaram. Euh, man la Xalilu kan Paris maa ngi di ziar yaa Oustaz Aliou yaa Oustaz Mbacke Sylla Oustaz Aliou Sall. jërëjëf kan. ah tere macha allah tey moom sa français yi moom yow moom daanaka prof di soor nga. déggal lii rek. garaaw de xaama xaama xaama roy Mbacke ci noosal baat. dama xaama man dama sama bakkan bi. non français yi duñ noosal da nga naan merci. ma wala ma yi. Ah, ah, waaw de roulé ak yi ci la bokk. jërëjëf macha allah waaw moom maa ngi dem surtout Tawba. waaw. ay 62. Euh, Euh, ya'rifuuna billaahi lakum li yurduukum wallaahu wa rasuluhu axaqu an yurduuhu in kaanu mu'miniin eh, léegi laaj moo doon laaj foofu noonu mooy wallaahu wa rasuluhu axaqu an yurduuhu euh, lu tax dafa ko y an yurduuhu ma mais mu mel na yonte yàlla yonte bi dafa dafa dellu ci benn mel na kenn la quoi mm-hmm. Mm-hmm. waaw loolu laa loolu moo doon suma laaj bu njëkk bi. Mhm, euh, laaju ñaareel bi. ci wàllu mhm. sujjóotu tilaawa. xam nga musaf yi boo ko toppee am na ay bërëb yooyu sujjóot yoo xamante ne nekkul si mësëb si téer yi ñu jàng si li ñu jàng si mësëb imaam Malik bi. Mhm. léegi dama laaj ñaar ndax ñàkk ko def ndax euh, lu ñu sibla. d'accord. waaw di leen ziar di ziar suma nijaay Ibrahima Diop di nuyu auditeur waa Al Alkitab bi yëpp. asalaamaaleykum wa waaleykum salaam wa rahmatulah jërëjëf Xalilullaay kan suñu bokki nekk Paris yëpp ñu leen di nuyu te leen ziara Yaama Coulibaly Gunuma ñu ngi leen di nuyu. nuyu kooku. <coughs> asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah bisimilah. Moussa ji woote. ah na nga def la de. <laughs> alhamdulilah naka réew mi baa yéen ngi fortaatu. waaw alhamdulilah moom. tey <laughs> baat bi daa suufee tey. alhamdulilah walaay dëkk baa metti. Mm-hmm. <laughs> waaw. <laughs> na ma waa kër gi rek na ma yërëm naa la nag. ndeysaan ak jënd ceeb jënd di waaye du ngeen lekk ceeb bu tàng fi mu ne. man koy man koy waaye bi lay bi lay xaalis bool bool xaalis muur muur ku ko lekk war koo gërëm. ah yooyu noonu xam naa daal di gën bisimilah waaye sant yàlla rek sant yàlla ndax moom bu ñu ñëwtoon dana dana gën a métti. jërëjëf jërëjëf. waaw daam ñaari laaj yi saat lu lool di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal gudd fan ko ànd ko wér. amiin amiin amiin. ndax ñu ngi déglu waxtaan ak ñu am solo lool moo ko sax Mbàkke ci suba bi ñu xëy. jërëjëf. waaw am na solo lool xam naa daal ñu ngi jëriñu ci moom lu bare bëree bëri am nañu si wàllu moom ñu am fay. jërëjëf amiin amiin yaa rabbi. waaw ma ñëwoon ci ñaari laaj benn bi mooy ci assurance damaa gisoon semaine passée mu ci doon wax. assurance. assurance dund ko maanaam comme ñu xam ne dañu fi ñaarale rek bëgg yàlla tere bëgg nga fee dee mais nag fu waay nekk mën nga faa faatu. Mhm. léeg-léeg boo xam ne si kër boo génnee àdduna mën ngaa yóbbu Sénégal. Mhm. léegi nag day ànd ak euh, maanaam bu génnee euh, bu ma fu ne ni man mi maanaam bu ma génnee àdduna day day am lu ñu may jox sama njaboot sama gannaaw. Hmm. yëpp dañ dañ ko en charge moo taxoon ma koy laaj mu leeral ñu ko bu baax. baax beneen bi ci topp mooy mooy mooy gore ak gore bi. laa hmm. bëggoon mu dikkal ma ci. ak gore bi. waaw gore ak gore bi. Hmm, waaw baax na jërëjëf kon yéen di jàmm. jërëjëf waaye Mbacke si la ji. jërëjëf si Mbacke ko sa la de. bu baax a baax. léegi léegi Adja ñu ma Camara. Adja ñu ma maa ngi koy baax a baax. <laughs> tubaarkàlla am na ku yëglu allo allo asalaamaaleykum. maaleykum salaam Oustaz. waaw soxna si. yàlla nga ziar bi. amiin dañ doon laajte. Mhm. màkk soo fay dem nga def benn prêt bancaire loolu lan nga kii prêt par def eh, pour fay sur douze ans par exemple. léegi nga dem màkk léegi est-ce que loolu yenu na maanaam parce que dañuy wax naan booy booy dem màkk waroo am bor léegi nag loolu lañ bëggoon laajte. baax na salaam. jërëjëf ñu jaajëfal ko bu baax moom soxna si jaajëfal soxna yi tocc tocc yëpp des nañ ñetti minutes ngir àgg fi ñuy. salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw. Seexuna Sylla sëñ sëñ Mbaye ñu ngi lay siyaare baax. sama xarit bi. maa ngi dëkk li. Mbacke de xaw naa dama sama baaraam bi sànq suba. <laughs> ah Mbacke. toll naa diggante moom na. Ah, ah, ma baal jàmm. moom moom nag fi mu génne day nooy de dégg nga fi mu génne. Ah. ndax damay suturaal. di di di nuyu di saa al am na solo lool. ba tey ñu ngi topp wax dëgg yàlla li ngeen doon wax ci wàllum président di ci indi ay message yi Seydina Omar ak yi ngeen doon indi ci suba yëpp wax dëgg yàlla am na solo lool waaw hmm. mi doon télé moom jar na def ay émission di ko dawal ci télé bi ko seetaan ndax moom am moom moom moom ëpp fi fi ñu ko takk weesu na ko ngi mel ne télé waaw <laughs> macha allah yéen kay moom war <laughs> na télé bi ñëw rek waaw indi la ñu dem suuratul Hud surtout am naa du solo aaw 45 ak waaw beneen bi bëgg naa oustaz ñëwoon na ci kan mooy ibnu haba illahi al askandari waaw di wax ne am na ay soppeem yu nekk fi di ko siwaar nag Seydina Ousseynou Diaw eh, kenn ki ki ki ko laaj benn aw laaj fa muy nekk alal Serigne Dia mhm. leen jàmm jërë ngeen jëf jërëjëf sëñ Cheikhouna Sylla ñu ngi koy jaajëfal bu baax oustaz Alioune xanaa jël daal di àgg ci eh, waxtu wi xaaj. incha allah xam nañu xaar ko asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatullah. yaaram na nga doon fay woote. waaw Oustaz maa ngi lay ziar. waaw ñu ngi lay delloo ziar di bëgg ci yow. Serigne Mbacke Sylla tëjum tëj Zago. Serigne Mbacke Sylla. di kontaan sama doomu baa boobu génn ñoo ngi leen ziar di leen delloo seen wàccuwaay. jërëjëf Sylla. ñu ngi woon sootu Mustafina aw 5 ba 9 rek. sootu Mustafina di gërëm waa Bitim yëpp waaw salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. sëñ Mbacke yaakaar naa ko mu doon ki mujj ci euh, auditeurs yi tey kon nag yaakaar naa sëñ Oustaz ñu bàyyi la nga dem te nga doo fa yàgg. jërë ngeen jëf ci dugg bi jërë ngeen jëf ci ànd beeg Sud FM seen rajo jërë ngeen jëf ci déglu bi fañ jëm duñ fa yàgg incha allah. ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman واهب النافع في المداء سافع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم jërëngeen jëf ci ànd bi Sud FM seen rajo 10h ma jot ba tekk fanweeri simili ak juróom-ñaar fii ci studio Sud seen rajo seen jotaay bii di alkitab Oustaz Alioune jaajëfal la bu baax jaa jëfal euh, mbokk yi nga xamante ni ñooy suñu partenaires yi sponsors yi suñu mbàkkee mhm. ñaanal leen baax a baax a baax ci collaboration bi ak yéen a jéeg ànd bi mhm. rawatina lobu maam jaaraak ñu mu ngi ko seqal ñëpp am na solo yàlla na yàlla barkeel la leen waa seen karaw kër xaadim waa Madaar Boxur ñoom itam ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. incha allah jërëjëf. jaajëfal tam euh, gars yi jaaroon ci buum gi. ndeysaan day dekk suuf forme de sponsor. ñu sant leen yàlla def ko ci seen téere jëf. te lépp lu ci am ci tuyaaba yàlla ko yàlla boole. yàgg naa. Mm. <laughs> loolu de mooy yi nga xam ne moom lañ daan jiital ci waxtu wi. ci waxtu wi. yaakaar naa mat na de. mat na bisimilah ñu dem. tukulóor bàyyi moo jëkk jaar ci buum gi moom ginnaaw ziyaar yi mu indi ak nuyu yi ma ngay laaj fële ci suuratul Ra'd aaya 33 tombe fi suñu borom subhaanahu wa taala di wax ni afaman huwa qaa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi shurakaa qul Hmm? donte xul sàmmuhu am tunabbi'uunahu bimaa laa ya'lamu fil ard fil ardi am bi zaahir min al qawli bal zuyyina lillaziina kafaru makruhum wa saddu ani sabiili wa man yudlillaahi famaa lahu min haad <laughs> bismillaahi rahmaani rahiim subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka antal alimul hakiim raad xam nga ne mooy dënnu suratu raad mooy suratu dënnu surtout dënnu. waaw dënnu dënnu. dënnu yi muy def buy taw. dënn yi muy def buy taw. suratu Aad mooy suratu dënnu. dënn moom am na solo noonu bañ koy tuddeew sax. waaw waaw tabarkalla am na solo lool. <laughs> yusabbihu raadu bi hamdihi. wallaahi wal malaaikatu min xiifati. waaw ay dënnu am na solo lool. tax ab jullit suy déggee muy taw suy dënnu mu ànd ak moom suy taw mu ànd ak moom fenn fu ne mën a ci léegi nag sunu yonent sunu borom subhaanahu di wax sunu yonent ba ne ko yàgg nañ sa bët bi yonent mm-hmm. wa laqad ustuhziya bi rusulin min qablik mm-hmm. ku fi ma a jaar gars yi sànni nañ la xeer xëpp la suuf wax la lu baaxul waaw laa ji jiitu mm-hmm. ne ko nag afa man huwa qaa'imun ala kulli nafs bimaa kasabat mm. mu ndax ki nga xam ne taxaw na ci bépp bakkan boo xam ne bi jëf na xam na lam jëf ak lu tax mu jëf kook ak mu ko jëfe ba koo fay ëllëg ndax kooku wu dana niroog li nga xam ne mën ci penc mi te ñoom xamuñ yooyu mënuñ yooyu duñ def yooyu ñu ne jawaab bi maxsuuf jawaab bi maxsuuf maanaam li yàlla lay tontu fii dañ ko xasaf binduñu ko ci binduñu ko ci mafhum a koy tontu maanaam la ko ciy déggee daal jeex na mu ne ñi ci penc mi nag defal yàlla ay suraka waaye ne leen sàmmuuhum xul sàmmuuhum tudd leen leen ma dégg wax leen ñan ngeen jàpp ne ñooy def lu yàlla def ñoom mën nañ ko wala ñu man lu ko jege wala boog dañ laa bëgg a wax loo xam ne yàlla xamu ko ci asamaan ak suuf loolu lépp dara amu ci bal li ma lay bëgg a wax ni mu am a lillazina kafaru makruhum ñu weddi yàlla seen seeni pexee lañ leen rafetal ba defe ne baax na dara baaxu ci daal gàllankoor seen yoon ba duñ dem ci yàlla te ku yàlla sànq fa maalo min haad mm-hmm. ku yàlla sànq ku la tegaat ci yoon dootu am wa shukran Mouhamadul Bachir ci laa jëm bu am solo boobu shukran yu tam ci tontu yu am solo yooyu sëñ naa ne. Bachir <laughs> bi am na solo lool. Mhm. oustaz tey euh, bari na lu ci nit mën a jànge mhm. rawatina fi mu daaneele ku yàlla euh, gindi ak yàlla euh, sa maanaam seetaan. Mhm. ku yàlla seetaan lañ koy firee wala ku yàlla réeral. dana firi ñaar yëpp. Hmm. waaye ku yàlla réeral ku yàlla seetaan yëpp. mooy yàlla daal moo joxe kàttanu réer moo joxe kàttanu jub. Hmm. lool la ma tax naan ku yàlla réeral waaye léegi bu ñu ñëwee jub moom la ku dëng moom la waaw loolu laa bëgg wax hmm. su ñëwee jub moom la ku jël moom la hmm. mooy moo joxe kàttan gi hmm. xam nga ceebañ ci kër gi waaw nekk añ léegi ñu taaj añ ni ñëloon ñu añ Saalum Mbaye nekk di bind moom di continuer ñàkk lekk gi maire bi ci kër gi togg difu ko waaye defu ko waaye nag dañ naan moo ko def waaye añ gi suñ bàkk añ moom tam maire bi defu ko. waaye moo ko def. ndax moo togg taaj ndax très bien moo togg taaj. moom daal indi na possibilité añ ak ñàkk añ yëpp. moo tax imma shaakir na imma kafuura. comme neex añal comme neex deñeel. tubarkalla imaali am na solo trop. Euh, kon nag mu mel ni suñu borom dafa dafa dafa tont tontu intellectuel mm-hmm. ku yàlla seetaan ak ku yàlla réeral. ndeysaan comme yoon waa ngi nii. jox na la xel. Mm-hmm. fii la jàmm ji fii la musiba bi ne. Mm-hmm. léegi des na ci yow yaay tànn. lu am solo moo tax mun la mën na réer ku yàlla réeral ak ku yàlla seetaan mhm, jërëjëf yaakaar daal ni kon ci topp docteur Alioune Gadiaga la nekk suurat Ali Imran la wax oustaz mooy saara bu ñu tuddee daara ja aaya 152 wala xad sadaqakumullahu wahdahu istawsunahum bi iznihi xatta ida fadiltum wa tanasatum fi l wa azaytum min baxdi ma araakum ma tuhibuuna minkum minkum man yuridu l dem nga ba cent euh, maa ngi cent cinquante deux ba léegi aaya ji gudd noonu foofu la ko wax cent cinquante deux cent cinquante deux jërëjëf Ali ci aaya cent cinquante deux borom bi subhaanahu wa dafi jàngale euh, xare ba nga xam ne moo nekkoon Uhud waaye di ci jàngale àdduna itam ñi def lu xew ñu ne yàlla lu fi jag daal nit ñee ko jagal waaye lu fi xew ñu ne yàlla hmm. waaw bu dee safaan bi ñu xaree xare bi dañoo xare sunu borom sunu yonente ba ne leen fii ngeen toog bu leen fu wàcc xam nga ci ci guerre ñi ñu jàngal wàllu guerre bu ñu la fii bul wàcc doo wàcc hmm. ginnaaw nag amutoon école bu ñu jàngalee guerre topp ndigal rek war na doon ndax ke leen taaj fi ñuy taaj moom in huwa laa wax yuuhaa rek kon nag bu leen wàcc hmm. léegi nag gaa yi wàcc nag am defet ñu rek ñoom soixante-dix waaw ñu tàmbali nag naan ah mbir mi nàngam mbir mi nangam mbir mi nàngam loolu ci benn xare la hmm. benn xare bi nga xam ne mooy xare bi nga xam ne mooy Xunayn euh, moom tam xare ba mel noonu sunu borom nag defet bi ak fu mën a doon du ci man wa laqad sadaqakum allahu waada man la ma digge woon def naa ko rek la ma digge def naa ko ba tax yéen yéen a jekk woon ca suba mhm. waaye jekk dafa dem ba xatta isa fasiltum ba ngeen yoon joxee tàmbalee xëccoo mooy la leen général ba digal la tax ngeen mooy ko mooy da ngeen a gis lu ngeen bëgg loola moo waral defet waaye du man yàlla mhm. ndax ba ngeen di dem di xare ñaara dem am na ci ñoom minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu aaxira am na koo xam ne bi muy dem ca xare ba àddunaa ko tax a dem am koo xam ne bi dem ca xare ba alaaxiraa ko tax a dem ña alaaxira tax a dem ak ña ña ña àdduna tax a dem bu ñu àndee ñoom ñaar kee day xeexal àdduna kee day xeexal alaaxira mënuñu am ñu am victoire waaw yàlla tabaaraka taala wëlbati nag victoire ba jox ko ña nga xam ne ñoom ñoo maîtriser loi ya li yabtaliyakum mu ndax mu nattu leen mm-hmm. waaw mm-hmm. ndax mu nattu leen baal naa leen nag léegi baal naa leen nag mm-hmm. ndax mu ne man yàlla ku baax laa ci ñi ma gëm njuumte du tax ma gedd leen ma sukkuran ci laajam ba am solo bi masha allah jërëjëf yaakaar naa ni euh, Mbacke waxtu bi xam naa kon fi mu ne xaw na <laughs> jege na waaye am na ci commentaire bu sax ci loolu gars yi def naa ko dañu bàyyi oustaz nga dem te dellu si doo fa yàgg incha allah incha allah bu leen toxal seen sër fukki ah wala boog juróomi simili moo ko tey jot Oustaz Alioune euh, lan moo ci tegee sayidina muhammadin alfaatihi lima uxliqa walxaatimi lima sabaxa naasiri alxaqi bilxaq walhaadi ila siratika almustaqimi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim مثل هذه الأمداح جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى سعادة الدائمة وفرح بها رسول الله jërëjëf kon oustaz Tane lan moo ci tege jaajëfal la bu baax jaajëfal partenaires yi sëñ Mbacke yaakaar naa ni ñoo ko doon ñaan ñëw nañoo jàmm tubarkal tubarkal kon nag eh, amoon nañu dooroon tukulóor bàyyi jàlloon na moom sutur aji la doon wax mbokk Aliou Gadiaga Aliou Gadiaga ci nga nekkoon aayam ju am solo jooju oustaz nga xam ne bi nga ko firee dañ ciy déggee lu am solo mhm. ndax xataa ah, isa fasiltum wa tanasatum amri wa mhm. asaytum moom euh, dafa am solo lool ci mbooloo ak mm-hmm. dund groupe ak li nga xam ne moom lañ ci mën a jànge ni nga mm-hmm. xam ne noonu nga ñu ko firile mm-hmm. waaye min kum man yurid dunya min kum man yuridul axira eh. euh, <laughs> yéeme na lool saa bu ñaar àndee kii am lu kii am lu bëgg rek yoon jox am dëgg la équipe boo fi gis ñuy football yi mm. nga dégg ñu wax ci prime te demaguñ bu ginnaaw suwaa ñibbisi bu ñu yegg ñu leen dóor waaw min ko man yuri dunia ñu bëgg taa léegi jax na adduna noonu lay doxe saa bu ñaari groupe àndee mhm. am ci koo xam ne yuridu dunia mhm. am ñoo xam ne yuridul axira mhm. duñ dem dañoo war a bokk ñoom ñëpp rek menn mbir muñ bëgg gis nga ñu bokk yuridul axira dunia ñu ngi koy réussir waaw réussir nañ ko ñu bokk yuridul axira ñu ngi koy réussir fi coow li lekk moom min kum wa min njaxas mi waaw njaxas mi waaye min kum ji bu dee benn rek mhm. waa àdduna bu gaa yi joxe ñu adduna képp programme ko mhm. daal koy am mhm. waaw am ñoo xam ne min kum yuridu axira moom tam bu dee group bu ànd ñëpp yuridu axira dañ koy am waaye min kum min kum rek du sotti waaw min kum min kum du dem dëgg la ci fàtte <laughs> muy lu am solo waaw minkum wa minkum minkum ba minkum waaw ñaari équipe la yoo xam ne bu benn bu ne beroo mën naa am résultat mais bu ñu leen jaxasee te bokkuñu ay jubluwaay mu indi ak yàq parce que li kii di bëgg ak li di bëgg bu àndul te ci bokkuñu mhm. mënuñoo boole am résultat bu baax mhm. Mhm. déedéet nit mënta boole bëgg ñaari yëpp bëgg àdduna bëgg àlaaxira de doomu aadama hmm. kenn ma mën na ko kenn kenn waaye mbooloo moo xam ne ñee lii lañ bëgg ñi lii lañ bëgg duñ dem hmm. ndax nit mën naa am wa nu waxati waay mhm. wa btaqi fi ma ataaka law daaral axira wala tam sansi bëgg mën a dunya kooku personne seul la mhm. Mhm. individu bi la waaye bu fekkee group la min ko mënjëru dunya min ko mënjëru axira du ñu dem mukk jërëjëf kon nag ñu xajal place bi soxna ndey Mariam Ndiaye mu ñëw tënkal ñu xabaar yi inter yi ci France ay ci wax moom Aliou Diarra rédacteur en chef incha allah ñu door a àggale laaj yi kon nag bu ngeen toxos rek déglu incha allahuma amin yàlla ñaan yëpp nangu tabarakallahu mbokk yi bi ngeen xoolee seen montre kon dix heures jot na ba teg ah onze heures jot na ba teg dix minutes tabarakallahu kon ah, ginnaaw ngërëm ak cant ñaal sëñ Xaadim Gueye ci maay bu am solo boobu oustaz Alioune kon ñu dellusiwaat ci jataay des dellusiwaat ci jotaay bu baax a baax di gërëm bu baax sant suñu mbokk Aliou Diarra ak euh, alxaaji Malick Maodo Faye ci xabaar yooyu ñu tënkal ci bitim réew ca kanam tuuti incha allah boole 12 heures ak 13 heures danañu dellusiwaat ci waa rédaction bi ñu gën ñu yokkal xabaar yi ci wolof ak ci français foofu nag agsi gu ñu sëñ Mbàkke fi mooy ci wàllu auditeurs ak jéem li nga xam te ne moo fi rotoon ci ay laaj tubaarkàlla kon ci loolu la ñuy daal di sóobu ginnaaw bi ñu noppee ci docteur Alioune Gadiaga ak tukkulóoru Baye ñanga meng ma ne ci rom moo ci topp imaal yi waaw kay jërëjëf sëñ Mbàkke ñanga de sa oustaz ngi laaj fa ci sóotul mu jaada la mhm. eh, to eh, ay set mhm. eh, ay set Mbàkke yaakaar naa ni mooy fi toll suñu woon subhaanahu wa fi wax ni mhm. inna alam waa kañ góore waay <laughs> alam tara anna allaha yaalamu ma fi samawati ma fi l ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa wala xamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalik wala akthar illa huwa maahum aynama kaanu suma yunabbihum bima amilu yowma alqiyamati bi kulli shay'in alim sunu borom subhanahu wa ci saar bi di al mhm. mooy mbirum werante werante werante mooy wax ñu wax la lañ la wax d'accord ca nga waxaat loolu mooy mu jaada la sunu borom dox ni ku koy def nit te fekk dangay ngay ci diine na sa bos gën a rafet bosam wa jaadilhum billati hiya ahsan jënn jigéen moo ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko hmm. sama jëkkër laa sentir tut hmm. mu ne ko jikko ji neexul mu ne ko wax kay sikkuma ko ci jikko sikkuma ko ci diine dama ko sentir tul rek ah. sunu borom woo jëkkër ji na ko waxal li nga wax ci kanamam mu wax ko mu ne ndaw si lum la mayoon may gu njëkk mu ne ko terrain bi si ginnaaw kër gi ne man nga ko delloo ndaw si ne ko bu baax a baax mu ne ko delloo mu ne ko delloo ko terrain bi mu may la mu mu jéggal la mu delloo ko terrain mu jëggal ko. tey mu jaadala. Mm-hmm. dikk na it ci. ndaw si ñëw ne yonent bi man day sama jëkkër ji moom hmm. daf ne ma maag yaayam la yemale te doylu ma ci moom tey yonent bi ko ah, na mu ne ko ah waaw seetlu li mu wax moom daf ne ma moog yaayam la yemale mook moom ba sunu borom ne xad sami allahu qawlallati tujaadiluka ko fii zawjiha <laughs> tey fii nag mbokk mi di laaj hmm. sunu borom subhaanahu wa taala dafa wax ne ndax yëg ngeen ne ki leen bind muy borom bi subhaanahu wa taala xam na la ca asamaan li suuf lépp la yëg ñu ha mu ne fu ñett yi rek mooy ñeenteel ba fu ñeentee réunion mooy juróomeel ba fu juróom di mooy juróom benneel ba <laughs> su gënee tuuti lu mu tuut tuut daal mbooloo ma ma nga ci biir mu ne lu mu bari bari mbooloo ma nga ci biir wa huwa maakum aynama kuntum fu ngeen nekk ma nga fa tey te bu yomal xiyaamee mën na kenn ku ne mën na ko diw mu ne am ne bés sàngam defar nga nàngam bés sàngam def nga nàngam ndax moom lépp la xam waaw loolu mooy laayay juróom-ñaar ci suuratu al mujaadala tubarkalla tubarkalla tubarkalla sëñ Mbacke yaakaar naa ni. lu am solo la yàlla yàlla yàlla dañ na kumpa de. Eh, wallaay wallaay kumpa amul ci mel ne mi ngi mel ne réunion journaliste euh, réunion euh, politiciens yi wala euh, journaliste na ci seen biir rek. Mm-hmm. lépp la lépp teg de. ña doon ña doon réunion bëgg a rey yonent bi kay dégg nga la wax. <laughs> mooy <laughs> a ngi noonu di la li pexe. yam kuréel yam kuréel. est-ce léegi ñaareel bi laa jëm si mm-hmm. Mbacke mu ni Oustaz mm-hmm. benn mbokk a ngi menn mbokk a ngi nii moo mm-hmm. xamante ni dafa am kër gu mu demoon di fa julli def na ay fan nag waaye jubluwul xibla léegi nag bi naan bi ma rendre compte ñoom fi léegi day fayaat yooyu yëpp walla muy def ya waxtu wa ju génn yëpp baax nañ bi mu koy fàttali ko nag ba fekkee am na waxtu wax ne waxtu wi génnagul booba da koy defaat maanaam su fa jullee ay fan tisbaar jot mu julli tisbaar ba sëlmal yëg ni fii du penk bi tusbaar ji da koy baamtuwaat tusbaar ju bees ji waaw waaye fan yële weesu yëpp noonu la waaw waaw fay na ma tuwàllu rek mu ngoog <laughs> wa shukran jërëjëf oustaz sëñ Mbacké kooku moom mooy taalibe Cheikh soppe si Sidil Maxtaar moo ci topp oustaz ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom daa indi ab joxoñ ci yenn nag ci eh, sketch si wala boog eh, téléfilm yi nga xam ne film mi ngi am ci suñu telee réew mi mhm. te itam ay ñu dëkk ci réew mi di ko suwe nee na daal dafa gis ne dëppoowut ak yar ak ni nga xamante ne noonu la ab jullit war a comporté woo mm-hmm. joxe na ci ñaari misaal benn bi mooy koo xamante ne daal waa waajuram mën naa bàyyi ko moom ku jigéen ki mu ànd ak koo xam ne aw euh, as maanaam as ngóoram la ñu dem ne dañuy passé ji kenn fanaan ak ñu demee noonu ñuy téléfilmo di lool di ko wone nee na loolu daal oustaz bëgg na nga artu ci jullit yi waaw jërëjëf xam naa suñu artu ñun CNRA mm-hmm. war na di xool yooyu mm-hmm. ndax dafa am ñu ñu jàpp ci réew mi tudde leen ay nit jox leen ay barab ne leen dee leen contrôler yooyu. lu warti jàll bu mu jàll lu ñu walla a dañ ko censurer. ba ci teg mooy def for na am day am ay yëf yoo xam ne sañ-sañ ngay am pour door koo def. mooy da nga jaar école des arts. ñu jàngal la mbirum li ngay def. boo ko xamee mën naa am yi sensible nga xàmmee leen. yi penc bi soxlawul nga xàmmee leen aada yi fi am nga xàmmee leen ba soo defee théâtre da nga ca mën a jàngale waaye du doon loo xam ni day reetaalu nii rek wala dramatique yu ñaam kii yooyu hmm. wallahu taala alam wa shukran tarkal la loolooy laaj bi kon oustaz dafa mel ni yóbbaale na yooyu yëpp ci mm, beneen bi ci toppoon ci itam yeneen misaal yi indi woon ci théâtre yooyu kon daal mm, dafa am ñoo xam ne ñoom lañ fal ñu war a saytu yi nga xam ne mooy jàll ci télé yi te dëppwut ak yar xam ne moom la nit ñi soxla incha allah imaam li am na solo hmm. oustaz euh, nga baal fu mbàkke amoo benn la kii loolu war a lancé itam mu nga xam ñi bind scénario yi tam ñu xaw a war a xel tam ci askan wi ndax itam message moom boo boo ko xasee jox parce que téléfilm yi ñëpp koy seetaan waaw moom laa wax ne bu tee école des arts amee dañuy jàngal théâtre kat bi luy théâtre luy seen yan col lañ ci war a sol ban message nga lañ lay bindal benn scénario buy jëriñ penc mi nga mën koo def lu du loolu taf yëngal rek lay doon waaw loolu rek lay doon taf yëngal bi nag su boobaa du jëriñ kenn dara du jàngale dara te ko defar yaa ngay yàq mooy sukkural jërëjëf sëñ Bakke. am na solo kon jërëjëf taalibe Seex euh, Imaam ki ci topp mooy euh, madame Jaxate waaw kay madame Jaxate oustaz euh, madame Jaxate waaw madame nee na oustaz ginnaaw nuyoo. moom nee na jëkkëram daf koy tongu. tongu bu métti nee na fan ak tongu. Mm-hmm. léegi nag bi mu ko laajee ne lu ko waral mu ko santuma. loolu mooy taxawaayam ak diggante sëy boobu loolu moo ci xew. jërëjëf monsieur Jaxate bu woote woon madame Jaxate woote bu ñu waxee ñoom ñaar danañ xam alxaqu maaman ndax loolu la yàlla waxoon daawuda hmm. yaa daawuda inna jaalnaka xalifatan fi ard xam nga lu ma la sant hmm. faxkum bayna naas bil xaq hmm. wala tabi ahwaahum mu naa ah, mun na ko booy att da ngay déglu kii mu wax nga déglu kii mu wax mag ma neena doom ja ñëw ne ko papa dañ maa dóor mu ne ko ah, dóor de bokkut cib sëy waaye la nga wax bañ dóor lii bokkut cib sëy dégg <laughs> ne ko def ma mu ne ko xas bokkul cib sëy waaye la nga def bañ xas la bokkut cib sëy dégg nga tey kon monsieur Jaxate ak madame Jaxate waxtaan leen ma madame Jaxate xam lu tax ñu ne ko sentir la Hmm. bu dee lu muy jubbanti di ko defaat mu defaat ko góor góorlu bañ santiraat ko am déet soo demee nag ba nga xam ne léegi mënu pexe moom ma di def sentirituñ la parce que yàkkil ko sos nangam mekk su boobaa lislaam du gàllankoor kenn ne ko nag neex naqari luñ la ñàkk sànq sentir toogal te te te toog du ko loolu dafa naan ko ba pexe amul sàkkal pexe wallahu taala alam wa shukran ci laajam baam solo boobu sëñ Mbacke toorkal la am na solo oustaz ndax itam bunt bi ni nga ko waxee bi nga ubbee rek daf koo tëjaat mooy bu ñu déglu woon ñaari version yëpp xañ na li ñuy gën a mën a euh, mën a waxtaane tomb am solo boobu xanaa oustaz bu ñu koy yaatal rek kon ci beneen angle mooy góor goo xam ne day tongu jabaram mhm. ndax loolu mooy li jaadu su fekkente ne soxna si da nga koo santiroon mu dem yàgg ci doxalinam santiratoo ko xëy na bàyyi loxoom wala da nga koo mere ci wax wala ci comportement ba natu ndax da ko koo war a tong wala da a waxtaan ak moom tong gi daa am fu muy wareek fu mu duduwaat tong de may nañ ko góor fekkee day yar waaye abatage ur rek la suñu borom wax na mat ñeenti weer képp maanaam lu mu yàgg-yàgg-yàgg ci quatre mois lay toll bu ko bu su fekkee man mat sa dëppal bay mbaa nga wàcc mu ñibbi loolu rek lañ ko may de waaye nag famille rek nag guuf rek jàpp sa njaboot loolu moom mm. ndeysaan <laughs> bëgguñ ko noonu euh, baat booboot dee benn baatu santiratuma la saas nit kat boo ko doon santiir ba sentiratoo ko sax xanaa nag génne baat bi war naa diis waaw sunu doom xaaj Moustapha Guèye yàlla na ko yàlla yokk wér mm. nee na saa jigéen ne jëkkër ja fase ma mm. nee na lim bëgg a wax lépp leer nañ mooy sentiratu la mm-hmm. yëgatu la. nëbbatu la. baat bi daa ëmb yooyu baat bi dafa ëmb yëpp. daal da koo détaillé <laughs> waaw <laughs> wax nga dëgg da koo takk rek jox la ko. Mm-hmm. Mm-hmm. nee nag su boobaa. Mm. boo naan wëccu ma laa du ma la bàyyeeg ñoom seen yooyu. yow yaa ci des léegi ma yorutoo jabar. Mm-hmm. waaw sax ju bàyyi moom la fa jàngale. waxtaan bàyyi na en tout cas suñu li ma ciy dolli. Mm. moo doon ni jigéen daal matul. Mm. bu caaginu saa woo ca doyale rek xam nga jigéen moom mën na sax doyale ne la bëggatuma la. waaye yow ku góor ki tamit mat gi ñu amoon ci yow ba yaakaar ba jox la itam tu dee ko bàyyi xel. incha allah santiratuma la bëggatuma la loolu góor du ko wax. am nga possibilité mën nga takk keneen mm-hmm. mën nga takk ñeneen yàlla ubbil na la ay mm-hmm. waaye daal bu dee saa wu neexatu nga génn ak di wax wax yu déplacé <laughs> bu dee lu matum at uh, mi mën a tong soxnaam lu matum at ñi bokk hmm. kër gi di bokk néeg bi di bokk yëpp foofu moom sax ndax arrangé jarati na ko loola loola loola oustaz Mbaye ngi tooñ ndax weesu na ñeenti weer ya weesu na ñeenti weer ya man kay li ma jaaxal mooy ni mu ko mën a muñee maanaam nga rawatina sax bu dee seer na soxna la yor muñ lu ma lu matum at ngeen bokk néeg bi bokk mm. yëpp te soxla woo ko jubóowu leen dara attiré wul seen attention kenn ci moromam damaa yaakaar ne diggante boobu moom àgg na ci cëppaandaw tàqali ko waaw mooy ba ñu àggee ba ca ñeenti weer ya góor gi war na dëpp mbaa ko jigéen solo dàllam ne bàyyi waxal ci lii waaw waaw mais oustaz ku góor jigéen gi est tam foofu tamit jigéen am na rôle yu parce que jigéen moom la bind ci luy dund am na loo xamante ne yaa ko war su sa jëkk su dee somm mais nga prononcé ci kawam parce que am nooy xuloo ak moom wala nooy wax ak moom dana wàcc am de rëy rëy tam baaxul. dégg na la. ma ngoog kon nag jërëjëf jërëjëf oustaz. loolu moo nekkoon ab laajam euh, oustaz Alioune ñu ngi koy ci jaajëful baax a baax te di ko ndokkeel euh, imaali ki ci topp mooy daam mbub. waaw kay jàmm bu ma topp ci. Mhm. Euh, yaa koy jëloon. daam. daam buub de oustaz ne ni kii dafa taal alxuraan di ko déglu eh, di déglu alxuraan ji ba nelaw maanaam noonu lay def ñaare buy tëdd hmm. buy nelaw nag du ko fay day bàyyi alxuraan ji continuer muy hmm. laaj ndax loolu dagan na am waaw dagan na kay amul benn muskile insha allah di taal di alxuraan fanaane déglu yendoo déglu nangam nangam hmm. loolu du ci wàññi dara insha allah na fekk rek bu mu ko def tey waxtaan saa xuraa xona fastamihu lahu wa ansitu laalakum turhamun ama teg ko nag muy way ngay waxtaan di reer di waxtaan di xaaqataay nangam nangam loolu hmm. bëgg wuñ ko ci noonu wallahu taala alam wa shukran tabarkalla saalin kooku mooy sëñ Daam Mbuub ki ci topp mooy Moustapha Mbaye sëñ Daam Mbuub tabarkallahu Moustapha Mbaye moo ci topp mbuubeen bi mbayeen bi hmm. euh, oustaz sëñ Moustapha Mbaye nee na ndax góor ci ci wàllu ci wàllu takkum soxna am na droit di taamu naan moom day ko am alal wala ko takkul addis la. Hmm. tunkaxul maratu. li arba li arbain. waaw. li la pexe amul ko. nga xam ne fi mu ne man daal ki may takk day am xaalis. waaye nag yonent ba nee na hmm. fasar bi zaati diin su ma lay digal hmm. Hmm. nekk sa ndéeg zaati diin laa lay tànn loo ndax tànn ki am alal mën na laa wan alalam tànn ki am ab taar mën na laa ci dërëb taaram tànn ki am judd nag waxi noppi Mm-hmm. kon nag fastar bi zaati diin mm-hmm. waaye daal kenn terewul jigéen nit dugg ci ndax am na dara mais li doon wax ci wàllu ngor léegi oustaz itam est-ce que góor gi am ngorit ak jom dana jël bëtam teg ko ci alal ju jabaram am waaw la la na sëy bay mel rek na la ngor gay mel mooy mm-hmm. ginnaaw da nga takk ndax alal mm. bu alal ji demeet na fa des ndax ngor mm. na nga fa des ndax ngor waaw <laughs> waaw waaw loolu lu ma tax xam la maa li <laughs> moo tax faxa faxa faxa bi mais oustaz bu buñ ko tournalee ci jamono bii toll nga xam ne si classe su Mbàkke si la gi sama classe gi boo ci wax naan bala may ñaari may wut ku yor dara parce que fii ne ñaari ñaari cas cas social moom mënu ma ko boole naan ah, loolu la gars yi di wax waaw ñu bari la ñuy wax ñaari ah, cas loolu moom kii ma tax cas social ak yooyu tam bu dee yooyu la est-ce que tam dina ko jarati waaw su fekkee daal kii dafa dugg ci jigéen la hmm. tax mu dugg ci ab ama ama hmm. muy diggante moom ak boroomam hmm. mu yem ca loolee te jàpp ne bu alal ji demoon du ko fa toog am na ngor am na jëm. dëgg la de wallaay. waaye dugg ci ñu dem yàgg yëf yi soppeeku. Hmm. nga génn tànk bukki hmm. loolu amul amul ngor amul jëm. te su boobaa dafa wor. ndeysaan lu am solo lu rek la. xam naa ne xewtu wii de oustaz bokk na ci li génnee jigéen ñi ci mbedd mi. Eh, li tax jigéen ñi toogatuñ. Hmm. ña ngi ca njàng ma ña ngi ca bureau ya. ña ah, ngi ca liggéey ba li bokk na ci li xew ndax léegi dafa mel ne daal <laughs> li ëpp ci li ñuy bëgg dañ naan kon kuy liggéey kuy nàngam bu njëkk nag eh, jigéen danaan su ma amee jëkkër noppalu mu yoral ma sama lépp léegi nag danaan su ma amee jëkkër yi du tax ma noppalu kon wuti. nouvel ordre mondial <laughs> moom mondialiste yi ba sëy yi ci àdduna si yëpp daanaka dafa niroo. Hmm. dafa am ci Europe ak yu ni mel. Hmm. jigéen booy takk dafay am lu muy joxe nga am loo joxe ngeen samp faay bi cent mille cent mille muy deux cent mille ngeen def bu góor gi génnee gis pom mu jënd pom bu ñëwee na pom bi ñaata la ko jënd mu ne deux cent ku góor ki day joxe cent ku jigéen ki joxe cent ñu bokk ko lekk mooy ni ñuy séddoo kër yi del facture bi ñëwee ku jigéen ki ne fay trente mille ngay fay trente mille cent ñu boole fay <laughs> loolu nag xewutoon ci suñu penc mi ñun suñu penc li ci xewoon mooy boo ah. xasee takk soxna du du def dara ci kër gi. Ah, yar njaboot gi rek ku góor kee def lépp. ku jigéen saa xam buy def liggéeyu kër lay def. fuddunu waaw liggéeyu kër lay def. léegi léegi nag comme léegi mondialisation dafa ñëw wala nouvel ordre mondial bëgg a mondialiser adduna si yëpp mu nekk benn. ñële nañuy takkee bokk ak ñun ni ñuy takkee. ndax école yiy génn ñi mooy école yiy génn ñële su ma di mu jàgg nit ki nekk noonu day wax ne kon man ku may takk day am. waaw dugal sa loxo ci kër gi léegi nag mu méttil jigéen nag ndax jigéen mën naa def loolu ba mu ba des yor kër. jigéen man la lu ne ba mu des yor kër. moo ñëwuñ ko ko. waaw mm. fay courant. Mm. fay ndox. Mm. ah joxe dépense euh, joxe dépense. Euh, euh, jënd gaz jënd gaz yooyu ci kër gi. fay xale fayal xale yi. waaw loolu ci kër gi góor lañ ko sa loolu lañ ko santoon moo tax ba yàlla dugalee aadama ak aw ci aljanna ja. Mm-hmm. ba mu ne falaa yoxur jànna kuma minal janna aadama mm-hmm. la joxoñ Hmm. boobaa day fa tasqa. fa tasqa. Adama yow mi bëgg a ko fa tasqa yaa. déedéet. Adama la joxoon na ko fa tasqa. yow mi nar a góore. nga su ngeen génnee fii. tasqaare noonu na ko yow mi yaay sonn. <laughs> mooy tasqaare noonu la taskore. waaw mooy mooy mooy yaa nar a sonn yow. yow mi nar a góore nar a yor kër gi yaa nara a sonn. Mm-hmm. lool de moo amoon oustaz ci suñ bawal geeg dëkk yu bari ci réew mi. waaw góor bañ jabara mottalil ko dépassam. bañ mu mottalil ko dara ci kër gi. ndax day bëgg a yore ak ngóoraam. Mm-hmm. léegi nag buñ ko tàmbalee mottali comme dañoo cotisé. Ah. bu wax ji jotee danaan la waxal jox ma ma wax. dëgg la <laughs> waaw boo joxee ba noppi da nga may déglu nag ma wax ndax. ci <laughs> <laughs> lay ndeysaan kenn mosu koo gis rek. ay imaam yi jërëjëf jërëjëf Moustapha Mbaye ki topp mooy Moussa Cissé waaw. ah euh, non des na ko laaj de des na ko wala. Moustapha des na laaj. def na ko laaj nee na daal waajtaayu julli la bëggoon nga ñëwal ko ci rawatina julli juma ndax dafa am ñoo xam ne julli juma rek la ñuy julli. déedéet. Hmm. julli hmm. julli la ci julli ñuy julli. Hmm. julli juróom mooy suba tisbaar takkusaan timis gee. yëpp la war a julli bu jumaa ñëwee mu mat mottali ko ndax mooy misaanul usbu. misaanul usbu mooy. ni ngay xamee ndax sama semaine bi julli rafet na am di ndax julli baax na juma moo koy réglé est que kon nag bex ko moom dong di ko def déedéet da ngay def yëpp nga julli suba tisbaar takkusaan timis gee ba mu am juróom ñaari fan bi ko juróom ñaareel nga dem ci jumaa ja julli jumaa mu complété julli yëpp def ci tampon nu yóbbu la say julli conteneur bi saf ko. cey waaw. allahu akbar allahu akbar. tarkalla macha allah jërëjëf. kon Moussa Ciss moo ci topp sunu cousin boobu. Moussa Ciss Morolan. Morolan lay wootee Oustaz nee na ci wàllu commerce lay laaj. ki day jaaye ab biti ci koñ bi kii ne ca marché ba waaye ala kulli aal ñaari njëg yi tolloowuñ am na ku gën a yombule. Mhm. léegi nag moom ndax euh, bu kenn ki waxee moroom ji ne ko man ngay xeex wala da maa bëgg daaneel moom mi aji jënd ji mën naa dem jënd ci ka gën a yombale ak kooku ku mën a. waaw wala mu war a def. waaw ñaar daal suñu mbàkkee. Hmm. dañoo bokk di jaay kilo mboq. Hmm. kii di ko jaay deux cent kii di ko jaay cent cinquante normalement ca kay jaay cent cinquante ngay dem. Mm-hmm. waaw loolu lislaam terewu ko kenn. araamalu ko fenn. Mm-hmm. jënd fa gën a yomb. moom daal na fekk na baax rek tabaarkalla ci mbañ nekk yu baaxut yi. Mm-hmm. waaye daal jënd fa gën a yomb moom kenn terewu ko kenn. wax dëgg yàlla wa shukran. tarkal imaam li. bi Cheikh moo ci toog. Cheikh Tidiane Diatta ginnaaw Moussa Ciss Morala. ndax ci julli ñaata distance la l'islam maye ci xool maanaam am nañu dañuy catal ak xulli foo xamante ne ay mètre la. est-ce que waaw dafa am lu ñu tuddee ci julli mooy teewlu. Hmm. fexe ba sam xel nekk ci li ngay def. Hmm. léegi ñaata distance la kii julli moo xam fan lay yemaleb xoolam waxuñu ne ko bul xool feew nangam bul téen daal lañ ko tere. bul hmm. téen bul téen waaw. waaye nag su fekkee day xool jëm ca kanam bu fa séenee dara. bañ faa xool a gën kon mu xool fi nga xam ne ci kanamam la mooy li gën mu mën a teewal ya uh, am xelam ci julli gi wallahu taala su wa shukran ci laajub seex Diagne jaata boobu jërëjëf ci tontu yu leer yu am solo yooyu nga tontu des na ko beneen laaj sañ Mbàkke mm-hmm. mu ni Cheikh Diagne Diatta ba léegi mu ñaari way dencante eh, suñu réeroo eh, nan lañ ci war a taxawee ban taxawaay lañ ci war a def waaw bu dee ay jàmbor de boo leen fekkee ba leen woowee waxtaan nga woo leen nga woo leen ñu waxtaan fekkee boo leen waaye ñu waxtaan nag coow la gën a bari ndax am na ci góor ñoo xam ne boo leen kalaamee yow mii ñëw jóg ne waa ah man ka diw dafay ñëwoon far gën ngaa xambataal ba waaw yow lay attaqué waaw day dem naan ma da may boole léegi man ndangam ndangam coole na kur da nga may bu njëkk nag boo ko ma masaana def ku góor ki day daal di reculer ku jigéen ki reculer ñu àndaat continuer euh, daal di sauver seen foyer waaye léegi daanaka pénc mi bu jigéen meroon ñëw ñëw waxtaan ak nit nga sol sol daal di waxtaan ak jëkkër ji jëkkër ji daal di tàkk. loolu nag baaxul. Mm-hmm. waaw alxuraan daa wax ne bu ñaar réeroo na ngeen seen diggante. Mm-hmm. mooy sukkuraan. macha allah macha allah. intaa ifataani minal mu'miniina iqtatalu fas lahu baynahuma Euh, Mbàkke ki topp mooy bawal bawal. ñu ngi koy jaajëfal baax a baax nee na noonu la tudde boppam di tegtale ne bawal la dëkk moom de oustaz ay eh, taali xaat la indi ay commentaire jotaay bi toftaloon na ci lu nuroo ko laaj waaye daa xaw a runge ci man. Mhm. ba xaw ma li mu bëgg a wax waaye daal ci wàllu jom gi ñu doon misaal. indi na ci ay misaal yu am solo ne si Ahmad Bamba ba mu demee ca tukki ba soxna Faati Isa mi jur maam Ceerno dane woon doomi soxna jaara jama xam de luñ ko teg jomam àttan na ko waaw lay wax naa ne moom du ndax jom mukk loolu daal jàpp naa ko ci ab duggam lay wax na dëgg mm-hmm. loolu la wax daal di indi ab laaj mm-hmm. ñëw ci jàkka ji ilimaan ne ko jóg leen ngeen wax ci courant bi mm-hmm. mu del si jàkka ji jàkka ji ñàkk ndox imaam ne ko nañ muñ tolluwaay la waaw léegi kay doolal sa ilimaan rek ci lim la wax te bañ a bañ a dugal commentaire yi <laughs> bañ a dugal commentaire yi régime bee ko defoon mu daggan ci régime bii ndax su boobaa léegi li lijjanti mbir yi du yomb <laughs> waaw lijjanti mbir yi du yomb ku dégg laaj bi xam <laughs> ni mu demee tabarkàlla kon léegi su su su coow amee li nit di yëg siñ mbàkke ba jóg ni lii jaaduwut duñ ko mooñ ci nit déedéet day naturel ci nit li li liy naqar nit ba mu jóg ni lii lii lii du yoon hmm. loolu dañ koy mooñ ci nit waaw su ko defee ku dégg ku gis lu normalul rek fexeel ba normalisé ko ñàkk ndox ñàkk courant ñoo ci bokk yem nag mhm. wallahu taala alam wa shukran ñu jaajëfal koo imaal yi jaajëfal la kooku mooy bawol bawol xalilu kan moo ci topp moom ma ngay wootee fële ca Paris waaw kay jërëjëf oustaz jërëjëf sëñ Mbàkke jërëjëf tam bawol bawol xalilulaay kan Mbàkke oustaz mu ngi woote fële ca Paris mhm. moom laajam bi ma nga fële ca alquran ci surtout Tawba mhm. ay 62 yaakaar na Mbàkke tolloog fi sunu borom subhaanahu wa taala di wax ni alam yaalam alam yaalamu annahu man yujaadilu lillahi wa rasulahu yëgal yëgal tuuti wallahu wa rasuluhu yaxlifuuna billahi <laughs> lakum yaxlifuuna billahi lakum li tardu li tardukum wallahu wa rasuluhu xaqu an tardu hmm. in kaanu muminin wa kay kon sama numéro taas bi dafa <laughs> dafa wax ne il faut ngay wutal ma beneen téere rek waaw dafa wax ne hmm. munaafiqoone yi hmm. bu yonent bi masaan nekk ci dara ñoom buñ ca nekkeet seen xel du ca nekk mhm. waaye nag dañu bëriwoon lu ñuy giñ yaxlifuuna billaahi lakum li yurduukum rek waaw naafiq foo xam ne billaahi wallaay taalaay nangam nangam billaahi wallaay taalaay ak ñu ko mën waaye giñ nga lépp nag li yurduukum ngir ngeen kontaan ci ñoom mhm. walla ngir ngeen nangul leen wala ngir ngeen jëggal leen wallaahu wa rasuluhu ahaqu an yurduuhu mooy nag lu tax damir jàll waxut wallaahu wa rasuluhu ahaqu an yurduhuma waaw parce que walaa yadlu ah, bi daa al maxluqina bi suqil xaalix mm-hmm. kon xaalix gi kenn la mm-hmm. moo tax yàlla du ànd ak yonent bi ci damir ji da koy bàyyi moom mu toog moom mu dem ci damir ji moom suñu borom moom képp mm-hmm. waaw ndax mooy alxaalixu yonent bi mooy al rasuulu kee mooy alxaalixu ñoom ñaar nag buñ agsee ba foofu su ma da ko bàyyi bàyyee ma damir ji wallahu wa rasulu ahaqu an yurduhu hmm, hmm. moom mu jël jabar ji donc in kaanu muminin bu ngeen am bu ngeen gëmee wallahu taala alam wa shukran la ilaha illallah masha allah est-ce que jërëjëf jërëjëf jërëjëf Ibrahima Xaliilulaah Kan euh, tifiir bi daa neex a neex ba bëgguma fa gaaw a jóg wallaahu ahaq wallaahu wa rasuluhu ahaq ah, an yurdoo ndeysaan in kaanu ah, mu'miniin waaw in kaanu mu'miniin mooy mm-hmm. euh, waaw euh, des na ko beneen la kañ Mbàkke waaw mu ne sujuudu tilaawa maanaam dafa am ay téere yoo xam-xam ay riwaayat war Cheikh Xafsi mm-hmm. mu ne def ca yoo xam ne na mm-hmm. laaj ndax ñàkk ko sujuut day yàq wala day aay moom daal foo ci àgg xam ne sujuut la sujootal ndax wasaa xuraa alihimul quran laa yasjuduuna ja mooy tax kon foo ci xam ne dafa xam ne fii sujoot la sujootal foo ci xam ne wuñ fii du sujoot bul sujoot lu mel ne nag imaam Malik am nañ wute ci ñoom ndax defu ko lu mat fukki sujoot ak juróom waaw am na ñaar yu mu indiwut wala boog am na benn bu mu indiwut léegi nag boo yorob téere yow di jàng baa nga sujoot sujootal waaw ñaan fa la fa ñaan wax fa la fay wax wa shukran ci laajam ba am solo boobu la jërëjëf ko nag euh, yaakaar naa mbir mbir yaa mbir yaa ngi noonu. Mm-hmm. mais oustaz man daal dama xaw jaxalee. Mm-hmm. Euh, kaamil yi ñuy wàccee ci dëj yi wala ci yenn barab yi di gis kaamil mu wàccee ba mu jeex doo gis kenn ku sujjóot. <laughs> Hmm? loolu su boobaa wasaa xuri ale xuraan laas ju doon na daa jam na leen. am nañu ko romb rek. daal di ah, saaraan dem saaraan dem ko xamut wala dañoo tayal. wala dañu ko wala dañu koy tëb. waaw yéeme na daal toll ci sujjoon moom. Hmm. war ngaa bàyyi la nga def na rëpp sëb ju sëb ji ci suuf. Hmm. waaw sabal sa borom bàkk ko. loolu hmm. sigg continuer sam njàng. wallaahi macha allah. jërëjëf Ibrahima Xalilullahi Kan te France kon nag waaye Mbàkke si la ji sunu xarit bi ma moo ci topp oustaz ñu ngi koy jaajëfal te di ko nuyu sama waa jooju waayoo naa la nee na ci wàllu assurance yi ñuy fay foofee ca bitim réew. Mhm. ñaari nit dafay dund waaye am nag loo xam ne da koy joxe ndax bu ko fa yàlla moomee donte kenn sababluwu ko kenn sàkkuwu ko waaye day bette te day dabe mhm. ñi mën ko caa waajal indi ko mhm. muy laaj loolu nan la ko lislaam gisee. waaw loolu de wax su boobaa mutuelle la. mutuelle jóge foofa ñu denc si la su fekkee loolu rek la amul muskila mu daal li ñuy bañ mooy li ñu tuddee assurance à vie. xaw ma nag nu mu jotee bii. waaye denc xaalis daal boo génnee àdduna foofu yàlla tere ñu indi la ci loola. Ah, loolu moom incha allah yaakaaruma ne danaa nga ca. Hmm. maa ngi wax nag ci contrôle ñoom Oustaz Ahmed Dame Ndiaye ñi mel ni ñoom nga xam ne ñoo jàngi yooyu. ñoo jàngi woon loolu wax ci Quran. xanaa us xanaa lislaam daa bëggul ñu denc foofa kenn maanaam daa rafetlu wut euh, ab jullit faatu bitim réew ñu denc ko fa. Euh, ah kay. Hmm. mën a faatoo mën nañ la faa waaye foofu sëñ Mbàkke dafa am barab yoo xam ne bu fa nit faatoo fañ koy denc da ngay fay. pendant li mu fa noppee fay dañ lay sulli. Hmm. Ah. Ah, am na ci barab yoo xam ne boo faatoo bu say mbokk yeexee ñëw dañ lay lakk. Hmm. def la dóom. <laughs> ndax fuñ la denc. ndax amuñu def ci butéel butéel yaa ngi butéel butéel mooy mooy mooy mooy kii yi. mooy bàmmeel bi mooy bàmmeel yi. ndeysaan. loolu foofa daal fexe ku indi fii. Hmm. denc koo xam ne dana fa tëdd. en paix. Mm-hmm. incha allah ndeysaan loolu moo leen di gën a léeg am na solo de léeg-léeg ci loolu mu am bitim réew wala ci réew mi wala réew moo xam ne mënoon nañ faa suul oustaz bu bay waaye nga gis ñu dajale xaalis bu baree baree bari ay millions ngir waajale ko indi néew bi. waaw te xëy na njaboot gi ñu fi bàyyi wala eh, ay bor yu amoon wala loo xam ne bu ñu leen ci taxaw woon mu ëppal solo fuuf eh, ñooñu ci indi am néew indi ko suul ko. dëgg la daal lu yéeme la waaye. moom kay léeg ñu def ci loo xam ne bu ñu ko joxoon bu ñu ko joxoon waa ji tukki woon. Mm. moom darul muy tukki mu toog mu léegi nag ñu far ko ci def ngir indi indi koor te léegi sax ni ñu koy paqueté noonu bu ñu ñëwee sax nit ñi duñ gisaat am néew waaw moom kees la ñuy jullee noonu rek denc ko waaw parce que kees gi ni nga koy kastee doo ko mën daj def ko ñett kees yu ñu doublé mhm. léeg-léeg bu ñëwee boo dajje ba ca kees gi nekk seng bi mhm. ñaar dajj ko da lay jafe mhm. mbaa nga gaañ ko waaw mbaa nga tubaarkal lu ne mën na ci am moom koy kenn su ko gis rek moom koy suñu gars yi daa mel dëj la ñu gën a mën faj nit nag waaw dëj moom Sénégal dañ moom koy moo neex a dee moo neex dee rek te naqare feebar waaw moo neex a dee rek <laughs> jërëjëf c' est important li ngeen wax léegi jërë ngeen jëf yéen yàlla moo tax waaw mais oustaz ci wàllu assurance hmm. kon nit mën na assuré oto mën na assuré këram waaye assuré sa bopp nag yaa ngi say njaboot nga xam ne ku leen korfer hmm. moom hmm. euh, boo ko deful ñu ramasse sa wala ñu nang wala nangam. moom def rek. gàllankoor Saalum. ndeysaan yàlla na yàlla yërëm. amiin yaa rabbi jërëjëf ci topp nag Mbacke. mooy. Euh, def naa assuré de. waaw moom. Euh, euh, dafa leb tur bi soxna si la dafa leb aw turam moom itam. waaw oustaz kii dafa leb turam nee na ndax def prêt pour dem màkk nga xamante ne dana dana dana dana nekk da bor bi dana nekk douze ans. Mhm. yaakaar naa su ma jumlee. Mhm. mu ne ndax leb dem màkk. ñu ñu la koy dagg ndànk ndànk daggan na maanaam bor jëmi leb dem màkk rek la laaj. bu yàlla lay woote daal. Hmm. ministre ta la waxoon. luy ministre ta. mooy ku ko man yàlla waxul màkk ñëpp déedéet yàlla hmm. màkk ñépp ñan la woo man istataa ilayhi sabila ku ko mën woo na la ku ko mën ku ko mën wàcc na la hmm. waaw rek te amu ci benn bàkkaar tey noo koy gi nii fi ne di bëggul màkk waaye bàkkaarugul ndax mënu ko mënu ko amu ci bàkkaar kon nag leb ci foo xam ne li ngay leb intérêt da cay tege hmm. booy fay fay lu ëpp màkk jëru ko fi waaw loolu su boobaa boo demee mën nga ne làbbeek ñu la laa làbbeek ndax zaadu ko xaraam. kenn woowu la waaw. tabarkàlla kon nag jarul lépp. bu fekkee nag da ngaa amoon bor bu ko jiitu. Hmm. dem màkka jot nga am billet ki nangam. Hmm. Euh, bor booba nga xam ne fii ak nangami at nga koy fay du la tee tee mën a dem màkk. waaw hmm. mën ngaa dem màkk fekk sa boru kër gi jeexagut. mën ngaa dem màkk foog fekk sa boru terrain bi jeexagut fekk sa boru oto bi jeexagut et cetera. loolu man naa nekk. bu dee bor bu ñu la taxaw nag nga xam ne da ngaa ameel Iba Mar Mbaye euh, deux cent mille quatre cent mille cinq cent mille mooy la fay ma bala ngaa dem fenn na nga ko fay door dem. donte paas bi day manqué. waaw parce que xam nga fii dañuy maye billet. waaw biñ la maye billet xottu billet dong. Hmm. sonal nga sonal say bokk. wallaahi. waaw. Ah, oustaz loolu man naa waxtaane waaw dañ jékki-jékki. léeg-léeg nga yóbbu nit màkk màkk joo xamante ne daal kenn daa xamul sax lu muy nur. waaw waaw ndax moom mi ngi amee mi ngi amee facture yu mu fayut. waaw mi ngi amee arrière ci njàngum doom ya. waaw mi nga mënoon koo dimbali. waaye jël ab billet màkkam ñetti million jox ko. rek ne ko léegi demal aji. te itam bu fekkoon nañ ko jox sax mu moom bi. waaw. bu demee mën na koo jaay mm-hmm. ñëw jël xaalis ba def ci yeneen yoo xam ne ay farata la mm-hmm. ndax moom mën a gut waaw mët a gut waaw mm-hmm. tabarkàlla ndeysaan léeg-léeg mu doon ko xam ne ci takkagul jabar waaw ñu may ko biyee <laughs> jaayoon biyee ba takk jabar lislaam danaan waaw góor <laughs> waaw waaye daal mu noonu léegi entreprise yeeg société yeeg parti yeeg dangam dangam yeeg fenn fu ne ñu ngay maye billet buñ tiiree nga génn te fekk yoroo fekk dërëm coow ne la lu la kur fu da nga fa tàggoo ndax bëgg ab yëpp ndeysaan te nit ñi léegi koo tàggu bu la lam la jox bu bëree bëri cinq mille lay doon mm-hmm. ah. te semel ma ngi cay séentu course gooy indi boo ñëwee. yàlla na yàlla yërëm. wallaay jar ñaan de amiin yaa jërëjëf ko dem Mbàkke kooku moo lépp kii sama sama xarit bi mooy topp Seex na si la. waaw. Mhm. moom daa mel ne alxuraanul karim la laaj Oustaz Alioune. suratu lan la suratu Huud aaya. 45 suratu Huud du sori fa suñ borom di waxee ca yonent yàlla Nuux ak euh, xew-xewam ya. Mhm. wa naadaa Nuuxu rabbahu fa qaala rabbi inna ibnii min ahli wa inna waxdaka alxaqu wa anta axkamul xaakimin walaay ndeysaan eh, yonent yàlla noonu la yàlla yónni woon mu am junni at ca mbokkam yu manqué juróom fukk di leen woo ba nit ña lànkee mu ne mu ne yàlla kon maa ngi def rapport wax la li ma liggéey li muy def rapport bi nag mu mu mu proposé sunu borom mm-hmm. ne ko dama bëgg nga reel ma yëfar yëpp rabbi laa tasar alal ardi minal kaafirina dayyaara bul fi bàyyi kenn ndax yéefar moom yéefar dong la jul jur nag intadarhum yuduloo ibadaka wala yàlla doo illaa fajiran kafaara reel ma ñëpp suñu borom ne ko defal gaal waaw ma defar gaal procédure rek man waaw waaw ngeen ku la ku la gëm na dugg hmm. mun na dugg leen ñëpp dugg gëm ne dañuy sowe hmm. mun a doom jana kaay dugg mun na ko mukk baax na dugg mu ne ko mukk ah léegi lool nar mu ne ko xanaa monté ci montagne yi yëg ci doj yi. waaw sa'awi ila al-jabal. ya'simuni ma <laughs> doom ji ne ko ah laa aasimal yawma. tey. lu dul gaal gi ku ci dugg rek moo fi sobe waaye comme nooxun gëm papaam doom ji gëmu ko mhm. <laughs> da ko wax ne papa yi <laughs> daal yi da tardé quoi dugg ci ay gaal ah. doom ji nante la montagne bi mën naa ay 17 euh, kii étage ci kaw. booy nante yi lusik la ñu. naka la fa ndox may àggee mooy njabootu fàllu seen gi. <laughs> jàpp eh, lusik rek. <laughs> <laughs> léegi nag sunu borom daan ne asamaan jox ma li nga war ci ndox. suuf jox ma li nga war ci ndox. ñu daal di boole ñaari ndox ya mhm. bi ndox yi wëlëx wëlëx yi waxaala baynahum mawj baynahum al mawj mu koy seen ba mu yàgg douche yi làq ko doom ja oh. te doomu aadama doomam bandi du tax mu bañ ko hmm? nit loo baax baax léeg mu am doomi bandi du tee nga bë leen saa moom nga gën bëgg sa doom yi waaye bu kër gi gëmewu ko déedéet yow bu ci <laughs> nag nag wéq na doom ja waaye bañu ko jeex na waaye bañu ko <laughs> léegi nag bi yàlla ne asamaan si mm. téyel ndox mu téyel mu ne suuf wanaasu li nga yor mu wanaasu gaal gi costé parce que alal juudi bi des nag léegi comment commentaire yi nag nuuxu daan ni sunu borom man de sama doom ji min ahli waaw te yaanam woon ahluka ñëppay mucc wa innaka wa inna waadaka alxaq teew mosoo digaloo defut wa anta ahkamul xaakimin lu tax kon sama doom ji nga nga nga nga ko noo communication bi xóot na. waaw <laughs> ah, parce que sama doom ji sama njaboot la bokk. ndeysaan waaye bëgg koo woon ne ko yëdduma la nag. waaw waaw ah, xam naa ne yow loo wax def ko attekat man nga. léegi problème bi nag mooy jaaxle naa. yàlla it tontu ko tontu lu mel ni loolu Mbàkke ne ko yaa nu wax. yaa nu wax. innahu laysa min ahlika dafa bokkul ci sa ñoñ. yaa jur nag muy bokkul ci sa ñoñ. <laughs> ah bon. Mhm. muy sa doom waaye bokkul ci famille bi. allahu akbar <laughs> da cee joox. allahu akbar amalun xayru saalix hmm. moom day jëf ju baaxul dafa jëf-jëf ju baaxul non hmm. falaat saal nii maa laysa laka bi ilm <laughs> bu ñu tollatee ci loo xamut bàyyi ma man mi xam rek ma def ko allahu akbar inni aizuka an takun min al jahilin bëgguma it nga nekk bu yonent xëy na ko ceddo yàlla vrai kilifa la <laughs> léeg-léeg moom waaye day kii daal kilifa la daal. waaw jalaal ji la jëfandikoo. Eh, waaw léeg-léeg mu jëfandikoo jamaal léeg-léeg jalaal. jalaal ji la jëfandikoo. parce boo toppee procédure bi Oustaz Mbaye hmm. mooy noox nee na ko rayal ñi ma weddi ñëpp. waaw yàlla ne ko wutal gaal. waaw léegi moom noox ñi ngi am ci benn logique boo xam ne li noox di wax garaawugut. waaw. Euh, nga yóbbaale say ñoñ noox yóbbaale ñu ko gëm doomam ne ko yéeguma ba pare lap noox ñëw di am lu mu ciy revendiqué waaw suñ borom ne ko falaa tas al ni maa laysa laka bi na waaw ah, dugg ci loo ne sa domaine yamal nag <laughs> li nga nekk sama xarit non bu nekk yonte nekk nekk ceddo <laughs> ah, man daal daal ah, waaw kay su ko jàng rek dégg dëgg wallaay ndeysaan euh, jërëjëf jeex naa waxtu yooyu des mais bu neex bu nekk bu ci nekk quoi doom dafa neex bàkke doom doom la ilaha illallah lu tax doomi bandi yàlla amul doom maanaam gars yi di gën a bëgg doomi bandi yi doom joo xam ne day am na ci kër gi di màjj màjj bu maire bi waxee mu ko waaye maire kalmu toowaay mais téewut maire maire bi kooku rek lay bëgg gis nga gis nga Yaaxub ki mu bokkaloon ndey ak baay muy Iso hmm? waaw bu bu seen yaay defutoon tic tac waaw ba Iso la ñuy ñaanal ñaan nga hmm. te kon Yaaxub al ko hmm. te Iso mérito ko mu déggoo turam bi Iso xaw a jantale de xeetu yu ma neex yooyu la quoi mooy <laughs> iso. waaw la. ndeysaan sëñ Abdoul Aziz ndeysaan daan wax ni ñaar bëgguñu bañuñu ñaar bëgg nañ te bañ nañu. ni mu ne doom. yaay yaay bëgg na doom te du ko bañ mukk. te gën a ji gën a bon sax la gën a bëgg. dëgg la wallaay mu ne doom ji jigéen bëgg na bàyyi te bañ mukk. kon looloo tax doom. <laughs> yàlla amul doom. mukk yàlla amul doom àdduna tukki. kon adduna te kon dee xewi wallaay seen doom si ndaw si kër gi boo demee ba jugee mu doog gàddu la wallaay sa addu te na yàlla yàlla sama bàyyi sama sama ay maagali bi Mbàkke eh, oustaz ki tam mooy sëñ Suroon Mbàkke sëñ Mbàkke Silla mhm. Pikine Ridis mhm. Mbàkke nee na moom waylun lil mutaffifiina allazina izaa ktaaluu ala naas yastawfuuna wa kooku ci tafsir mhm. suñu borom mi ngi wax ne ñi nga xam ne bu nuy jënd la ñuy jënd peese ga day mat mhm. bu nuy jaay domp ca ñooñu naa leen du ma su ëllëgee bu ñu lay jaay di peese mu ne ba la jaayee fukki kilo am lu manqué mhm. boo ñëwee di jaay mhm. boo leen jaayee fukki kilo am lu ca tege isa kaalu ala naas yastawfuun wa isa kaaluhum aw wazanuhum yuxsiruun ah. ñooñu nag yàlla ngi lay xaar yow ma yokk mën a si rabbil alamina wa shukran ci laaj bu am solo jërëjëf kon nag loolu mooy laaj yi buur na sëñ Mbacke wallaay ndeysaan buur na kon xam naa kon nag ngeen fàttali ñu li ngeen di indi suba ci gee oustaz Alioune Mbaye incha allah ci kanam tuuti rek dina dellusiwaat ci Ibrahima alayhi salaam ñu ngi ci suñu troisième épisode su ne ba 22h30 daañu ñëwaat ba solo suñu borom waxtaan ci wàllu alminbar zéro heure daañu ci waxtaan ci ci xadara bi nga xam te ne dañ koy def xadaratu tijaan luy xadara incha allah ñu fa seen waxtaan. Xaaji Mbàkke. boo noppee ci tafsiru quraanul karim bi danaa ànd ak mbokki daara yeeg soppee alxuraan yi ci boobu di xamtu. jërëjëf ñun ñoo ngi ànd ak alayhi salaatu salaam ba agsi na màkkatul mukarrama def na yëpp ma nga ca arafa tey lay tàmbali na xutba arafaam bi. macha allah. yaa yoon naa bii mooy suivi mooy suivi bi topp bi nga doon teg bii. waaw waaw bi bi. <laughs> bi mooy suivi bi waaw. affaire macha allah man damay day mel na maa nga fa daal. waaw. day mel ne maa nga fa daal <laughs> non dama la dégg ngay wax ci wax wàllu oxot. bi nga ci wax. dama ne man maa la mën a seede. oo ñaari at a ngi ñu fi ànd. waaw mais doo mën a résister. ayca <laughs> kon nag euh, tubaarkàlla mbokk yi leen toxal seen déglu ci kanam tët li ciy tege dana ci tege incha allah 11h moo jot ba teg juróom fukki ñu war a yëkkati jotaay bi di ñaan borom saa def ñu tawfiq ci defal leen ko lu jub ci wax ji sunu borom la lu ci jubut du moom ñun ñu ñoo doon jéem yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Thank you.